merci Bob Seen. man saa yu ma xëyee dama leen di gën a nopp. mais kontaan nañu. maa leen gën a bëgg. mais seen du nga naa tey. gisuma gis la ma gis nga li ma lay wax. li ma gis gisoo ko. bakkan bi ko bëri nag. <laughs> du ma ko laal. wala endo bi endo bi mu jël fii endo bi. mais bi nga loo togg tey. nee naa leen tey daal c'est bon laa fas yéene laal diwtiiru Casamance ñu def suul ak bëggëj. yokkal ñànk tàng bi ah. yokkal ñànk tàng bi comme noonu. non yaa ko bëgg non ah. on ne peut rien dans une corne courbe. loolu yëpp bëgg mais xas na ba ñëw ñëw ñëw. non changé ko. loo leen bëgg def ko ceebu jën. voilà ah! patrimoine international. voilà écrit par UNESCO. non kenn du fi togg ceeb. benn mbay. même ceeb moo sa sa sa sa nañu ah. benn mbay ba suba ñu c'est bon. Oh, amul solo kan moo joxe dépense am du man. yow da nga oh, bëgg ñàkk tànk te feeñul ci sa yaram man loolu ma jaaxal. voilà. Eh. mais après après yow reer mooy nekk suñu dépasse waaw c'est li ngay joxe mooy lu ñuy joxe billaay yow suñu kër fii suñu kër benn la laaj ko reer bi ah! reer donc où est le plaisir d'avoir chez chez soi où est le plaisir où est ce plaisir non gëj a tukki man dama ko tam ah, avion baaxul seen kër di leen imposer kañ pourquoi vous voulez imposer chez moi s'imposer vous voulez ñu dégg. taamu avion taamu avion. li yëpp vous faites chier carrément en compte vous faites chier. Eh, teel ma sama saybo bi ah. non il faut que. wa ilaa nañ def benn togg rek ceebu jën Penda Mbay bu fatt tara kër gi ñëpp toog añandoo. ñu ambiance reer reer méchoui. kenn ko méchoui. <laughs> léegi ah mukk loo bëgg ñu def ko baax. nañ ko puuj paaj. <laughs> Ah, kenn du ko mis si koy puuj paaj. kenn du ko mis dañ bu dem kaw kenn du ko mis dañ koy man d'accord naa ñu toggal leen ceebu jën mais tey ci guddi michu bi ñoo koy bokk kenn du ko puuj pàcc. baax wuy ma c'est trop quand même. Eh, baax vous en faites trop. maay puuj pàcc ba mu neex. mais puuj pàcc bi dina guddee de. ah damaa am copine buy jógee France di vingt heures man ak euh, njool dañoo war a dem aéroport jëli ko. moom jëkkër may ànd xanaa. kooku di célibataire bu mag avec un grand C nag. <laughs> kenn du ko ah. mis fi dañ koy puuj paaj. kenn du ko mis fi dañ koy puuj paaj. <laughs> xoolal fii. tey maa ngi fi boo 4 heures du matin wàccee leen kër gi ba boo 4 heures. na kër gi wàcc boo 4 heures. Eh. Eh, waa kii kan la. Mm. yow bu gars yi di ñëw toujours en retard Touré. koo nekkoon ça va. Touré toujours en retard Touré toujours en retard. ah. monsieur Touré. Euh, toogal correctement ci fauteuil s'il vous plaît. ay bébé. non non non il y a pas de ay jibi il faut que les gens adoptent les bonnes manières. cest à nit doo ko bay bayal ci lu ko neex. certes samay xarit lañu mais non mais ni mu toogee baaxul xoola. s'il te plaît s'il te plaît. Ah, mon frère mon frère s'il vous plaît <laughs> s'il mais je ne dors pas. lan xam ni nit da tëdd ak lu nelaw dama sonn. looloo sonn dafa dee nelaw guddi. c'est une célibataire ba kañ. ah mais rek. ah léegi di calculer léegi dimbali ma defal euh, ah! ba pare euh, dimanche defal deux tasses de café. deux tasses waaw ku di ñaar. Ah, <laughs> ñaari cuillères <laughs> Tafa dama la bëgg. Euh, xam naa Tafa dafay mujj dem jëndi café ci mbedd bi. lu tax ah, rombo ay jaaykatu café ci mbedd ay yow non non y a pas de ay bébé yow café gi ne gàññ ci biir kër gi non non non non café googu c'est pour nous non mais Tafa sa nit la est-ce que ba may jënd café gi c'était pour lui mais ci kër gi la dëkk non mais eh, attends y a pas de mais Tafa Tafa je te je te dis quelque chose il est temps nga takk jabar parce que mënul nekk man ak yow ñu bokk jabar mënul nekk non c'est pour moi. waaw boo yeewu suba mais wutal ku la defaral café café. mais man je le fais avec plaisir. sama jabar la waaw jour ouvrable nga bàyyi ba 11h doog a yegg si 11h di laaj café quand même. vos femmes c'est ma femme. waaw vraiment Tafa. <laughs> ah ñun waxante dëgg. billahi wallahi. on est même quartier. Ah on est des voisins. Ah. on est des amis. léegi yow. on est des. ah amis. waaw ñun ay xarit. ah vraiment. yow sa jabar ji bu yow boo boo nekkul fii sax yow boo boo vocal ma demal li doxali sa yow wettali demal la. d'accord c'est bon léegi euh, boo ko defalee café bi ba pare da ngay yore connaissement da ngay dem. non damay relax ceebu jën la gars yi commandé tey moom damay relax benn mbay. saint laa jëm ak yow tey. damay relax. relax nag eh. guddi gi puuj paaj la de. yow puuj paaj bi dina baax ci yow eh, ndax da ngaa tooy. man xool journée continue laa def <laughs> ak tey journée continue kër gi. <laughs> doo kan laay am intimité. bi bi ñii fee leen toog seen espace yow loo bëgg doo kañ a doo mujj. waaw non mais nga mën a nekkat. non du ma kañ a ah, du ma undu mais aussi yéen ah. tamit du ay weñ. ba tout le ngeen di dugg sama biir. oui ma tafa sa xol bii ci kër gi waaw. gaa ngi fële commencé nañu ataaya maa ngi lay andi léegi li nga soxla ba pare soo ko dem marché. dégg nga wuy ma feet yii nag. xam nga yaa feet ah. sa diggante gi leen ko jox. xam nga ko ci bitim réew. <laughs> nan ko feetal nag. jot ah. na kat. ah ah ko war a feetal ah, weer weer si ne la. <laughs> ay waay. monsieur Seye kii comme moom eh. ma nga ko jox weer yi. da maa ana sama gars yi. maa ngi ñëw léegi maa ngi ci ngi ñëw waaw ah, d'accord maa ngi nan Lido nag tey. parce que là je travaille. mais naa yaa attends non non non non faut pas ngay favoriser loo xamante ni euh, fu mu jëm du neex du baax ci man vous savez très bien que samay neurones te nu fragile yow tu sais très bien que dama fragile à tout moment perturbation yi mën na ma indi ay problèmes yoo xam ne keroog sama psychologue loolu la ma wax daf ma tu da nga manqué euh, silence nga manqué. te ñii duñ moo ko may j'ai un problème de silence damay soxla des fois di déglu waxu picc ça fait combien de temps déggutuma picc bu jooy. ça fait combien de temps parce que nii tout le temps ñu ngi sama biir kër il me perturbe c'est mes amis d'enfance mais il me perturbe. yaa da nga leen di jàppale ci loolu te yow ah, ah, mais des nit ki da ngay soxla silence. silence da ngay silence kenn mënatu ko euh, merde. waa yeewu na mi ngi doon sangu néegam laa jugee sang gisoo sang ba tey fa laa toogoo. ok dañoo gëjee gisee maanaam moom. non yéen ñaar da ngeen yàgg da ngeen yàgg depuis depuis xale la woon. ba tey ba tey ñu ngi ànd. man je me bu jamono yi nii euh, ficelé suñu fiançailles. billaay période boobu laa ko doon xam. si après boobu nag ci la demee France ba tey ñëwul. ok moo mu ko gisee démb waaw gaw ma ko sax gaw ma ni moom laa gis. man xàmmewu ma ko woon ah Waouh, waouh, waouh. Bonjour la famille. Ah, ma chérie. Ça va bien? Ça va et toi? Bien dormi? Waaw, xam nga dama la namoon. Eh, aywa man dama la oh, namoon doo poussi distance bi oh, ñaata at. ah. mon bébé tu m'avais trop manqué. xam nga ni fii chaque jour ma nekk sonal ji dama mujj dama ko takkal pot nan ko damay dem damay dem dama namm bi may dagg billet je te jure dama la namm tellement que tey moo ko sax lu ma coûté rek jaral na ma ko billaay xam naa la namoon moom ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm yaa ngi belle kii petit ba grand def na 10 ans léegi ba nga demee ak léegi de wala. waaw quand même yaa def na 10 ans mais les années passent vite. trop vite même. mais j' espère que mi ngi lay toppatoo. mais bien sûr. xool ko xool ko xool ko xool ko muy xuloo. eh Tafa eh eh eh. eh Tafa eh, wax xanaa waxuma kii. wa eh. waa Tafa xanaa boo su ma la woo nga mën maa mën a wuyu boobu ba léegi maa ngi lay woo loo si ma. di xuloo wéj wéj wéj bakkan ko fi nga doon werante Sadio maane la ñu war a jox ballon door kii lañu war a jox ballon door ba di ci xeex pour lan dafa bàyyil tàng xool bu ma la woowee wuyu ma. injustice laa dul nangu man injustice du ma ko nangu. foo gis injustice. dëgg see bii xanaa yow borom bi kese nga nga dem di liggéey nit ñëw xam liggéey bi gën laay maîtriser liggéey bi wax la dara ci liggéey bi nga lànk. problème lan la. dépôt orange money. waaw damay dépôt. waaw am defaloo ma sama xaalis. sama biir téléphone. waaw man ma dama ko ciy fay. fay lan lan laa koy fay. orange money ak ah! fay dépôt. <laughs> heureusement ba ngay nandite heureusement yooyu jarul coow. jarul xuloo kii dama koy toxal. da kii moom monsieur le maire faw mu génne. ba bàyyil yooyu ngay dugal nag. affaire autorité yi ngay dugal. <laughs> non kii day jóg. bi ma lay mujj gis yaa ngi meloon na rab mais maintenant tu as pris beaucoup de poids. mais si mais mais mooy feeñ ci nit. wax ko mais moom il sait bien que en France c'est normal. waaw waaye boo toppee pataat yi ginaar yi moom doo da ngay prendre poids quoi da ngay mais sinon lu tax nga gëj fa. non mais xam nga dama am arthrose et puis su may docteur dan ma tax a léegi seddaay bi yeeg yooyu. moo tax ma daw ko je préfère régler su may euh, peut dan ma koy transférer. léegi bi may ñëw démb il faisait moins un. Hmm. ah trop froid. ma chérie. oui ma chérie dama bëgg a jënd puce. puce nga bëgg a jënd puce laa bëgg. waaw d'accord puce day jaay fii puce point yu bëri am na fi fiy jaay puce. parce que dama bëgg euh, ubbi compte Orange Money. Ah. profité wu ci promotion fin d'année yi. yow mii. lan wax naa xool li nga nar de. nee naa Sénégal dara été toujours maligne. dafa ah. muuf mu koy gisee di dafa yeewu. mais pour bien fait parce que jamono ji may wax yow. elle n'a pas changé du tout ñu ngi ci deux cent pour cent trois cent pour cent. moom bu dee orange rek. kan dem ma gunge la ma chérie jaru ko. bay ma gunge li muy wax ci orange money yëpp xam naa ko damay dem télécharge ko jënd puce. am ba profité wu ci lépp. nee naa la yéen jàpp leen ko fii rek. wuy ma gis nga boo fi réeree. talu mu ay pot ak bool di tëgg naan. salaama sama gan bi réer ah kii gëj na fi ça fait dix ans. gëj fi de mais dara ump ma fii ci Sénégal xam naa lépp bàyyi ma dem tëjoo. waaw baax na xam nga yàgg dëgër bopp. maa ngi sa gis la. t'inquiète mon chéri. Ah. ok ça t'inquiète. prends soin de toi. à plus. ok merci. ok mais est-ce que rooti ginaar fan la koy lekk yow déjà bébé ki nan lay pataawee ñëw nga naan ko da pata loolu day découragé lu nit. ñoo koy découragé. ah da nga am yaram kenn bëggu ko dégg. mais xaw ma kañ lay ñibbi te sama photo yaa ngi nii à tout moment mën ko noxal wala ko. bébé. mais kii gis nga GPC. waaw taxawal rek ma briefing la gis nga kii quand même. kii du sa ñetti ñële nag. dañ waxante dëgg de dama bëgg nga mettre ko à l'aise ci biir kër gi sa jukko siis boobu denc ko 15 jours rek la fiy def yàggul. Ah, bu ñibbee waa ok nga la neex tey le 2. tey le 2 waaw. donc bu ñibbee on va fêter ça. tey le deuxième jour am ci biir kër gi bu ñibbee je vais fêter ça. waaw ok 15 jours la <laughs> nga mel ne cooli nii. dafa sama xam ne moom mooy baare. sa mbaxana mi doo ko wengal tuuti waaw man ban naa adduna ma dama bàyyi adduna ma dama lay laaj ceebu réew mi mën na lii ceebu réew mi mën naa def nii nit man maa bàyyi adduna ma lii du ceebu réew mi waay yow da nga xam kii fu mu dëkk bopp koñ ba laa ko toppe kii tey am nekkul fii li muy xeeñ xam naa dafa neex. maay Jackson bii moom bu dee effet yi lay def ci xale yi jigéen. jooy na ndax. kooku lii menuisier yi moom am nañ liggéey moom. lii budul woggu di suusal budul suusal di dugub bi suuna cox mënul lii <laughs> looy rek dama jommi man lan la yow. yow lii lii looy peral ma looy peral ma ay wax ah. waaye yéen lii dimbali lii. baax lan la baax lii lii lii lii man lii. man lii nekk sa àdduna bi tamit lii lan la ci àdduna bi ñu ne. allahu akbar. eh gën ngay càmbar càmbar yi yow. loolu la baax. Eh, dimbali waari waari waari. salaamaaleykum. maaleykum eh, salaam. Ah, di war an ka hal pulaar de. <laughs> oui mi ko. ala wala kay góobe de. naaf yoo. <laughs> ka séeréer. non ah. ka niroog séeréer nag. non <laughs> pas du euh, man nag du ma woon Haalpulaar mais comme yow Haalpulaar nga ma transhumé. <laughs> na nga def c'est gentil même moi. ah Tafa amoo loo seetlu ci xale bi. Ah. comme doomu batañ sa bu ñu sànni tuuti engrais. waaw waaw <laughs> waaw. Eh, eh. ana sa bàjjen. ça va na la de. Eh, loo am jox ko. yàqoo karité te ba. Eh. Sénégal bu ngi neex ba tey. ba tey <laughs> non yéen vous êtes trop là. wax ni la. Mm. Sénégal gii. Mm. yaay busol bi. <laughs> busolu réew mi ku bëgg xam sa indication <laughs> fan nga jëm eh, côté gauche wala droit eh, na la topp. Ah, yéen yéen may nañ trop kontaan nañ madame ca engrais bala. Ah. ca mooñ bala. bàyyil ma tegal ko soow ba mal. baax sama dënd bi mooy rëbb rëbb nii doo xool lan la. mokkante sama dënn bi day révélé wu moom mooy mantalaat bi nga mokkon saga sa may tagal ko yow dangeen a soxor mooy yëngal na ko de te am na jàpp na ma dafa naa la fay man bu jógee fi ma fay la mu soobee yàlla. yow baax ñaata moo. ah tabaski kii passé baalante ak bi ma la waxoon baal naa la rek mu nga yàq loo ma yore da cee bokk. demee mu noonu de. léegi nag xam na la demee man yoruma xaalis liquide ndax ma kaas kaas yow ma liquide doxuma sa àdduna bi liquide ñu may agressé man sama carte sama compte orange money laay defal ndeyal nit lu baax xaaral ma transfert la dix mille tegaat ci frais yi ay fay la yoo xam ne fay yu lay doon nag dafa rek moom beneen yo y yan nga fiy jël di ko taaw yi di ko ngandeel jël yan nga fi gis lu ci orange money ci transfert d' argent yi laa la wax ci réew mi zéro virgule huit pour cent Orange Money dong moo ko fi def. nga ni loolu sax yow genre participation la rek yow. mu participer noonu rek. ndax piis bi nga am ak yooyu rek. Eh, waaye loolu fay fay fayaw ku la bëre. Orange day maye de. Ah, xam nga ni day maye. day maye de. na. Ah. kon nag maay sama grand frère. réglé ma nga fay mbor. léegi xam nga laa la tuddee. Hmm. zéro virgule huit pour cent. zéro virgule huit pour cent. <laughs> jël yeeg yooyu di dégguma ko sax. c'est vrai baax. déedéet yéen nekk awaaj. yéen dañu doon waxtaan. waaw jiitu la dem. ma awaaj. Serigne Serigne wóor na. waaw ñun dañoo privé moom ndax xam nga man dama privé. yow rajo xanaa sama am lañu. bu leen ma bu leen ma def sandis. dafa ni bul def sandis yow. voilà. yaa ngi fàttaliku rajo bi moom lañ indiloon maamu may bu njëkk. waaw mais nag nag orange money du ay gis nga orange money mooy mbër mi ci biir làmb ji. du fàqande da mboot ba nga leer nañu. daan na gars yi. gisul kàttan fi nga def. respecté wu ñu jërëjëf yaay moom rax. nangara nangara nag. Amina waa kër ba Seydina Maal mi. waaye lu dagg becc mi. ah sama rajo bi kii bi mooy lox. banda bi mooy lox. banda bi yow sëkk am na mooy lox tombe waral ay gaaf danga cee tombe xam nga ñëw nga fi naan ma damay génn dañuy dugg fi dañuy newoon naa la sama kër moo dàq suba la tabaski dafa neex comme lem. gis naa gaa yee ngi nii ñii laa la doon wax ay xaritu jibi lañu. mais dañoo neex tellement que xoolal foo ko natt weesu nañ ko man gars yi ñi ñoo efficace yow xoolal ñii ma leen xam chaque gis ne jour ak nañuy duggee ci kër gi ma leen xam chaque bi may ne damay dem jëndi puce la fa passé jëndi puce yow si mbedd bi ñu dama réer bu bëgg dee laa je te jure yaa wala woo leen ñoom ñett ñii la xoolal borom pétrole bi jàkkaarloo mu ne moom dafa transhumé pël la alpulaar la léegi. Ah. ndax ah, man yaa ngi soog a wax nag moo tax yéen boobu ba tey baaba maal baaba maal pour man da ngeen am contrat ndekete su fee tax ngeen transhumé. Ah, daane maa la leen bokk léegi orchestre daane maa ah daane maa yow ngeen bokk <laughs> dina leer copie yéen da ngeen transhumé kon. mais copie li gën a ne daf maa bëgg def séeréer bi kan ba <laughs> ma ree ba sodd kii sëtu yànd koddu la nag <laughs> mën na lu ne kii maamam la de dama leen xam kii maamam Ah. ak sama maam. Ah. seen ñaari maam ñoo bokk ñaari maam. <laughs> moom moom tukulóor la si <laughs> xoolal nag mu ca yabu ca ku ko ko wax mu jara. amoon tukulóor la dama leen xam dootuma ñu métti fi lay toog. <laughs> ah France day na sëkk. man la déggoo li ma la wax man stress. boobu xanaa bu fi toogee day wéy ci appartement. bu toogee 15 jours la ñu waxante non bu ma ëpp ko. Ah. toog bi laay bañ dégg. ok euh, bon je vais vous dire quelque chose. ces trois gars là c'est mes amis d'enfance. mais pour te dire xeetu xeetu soññ bu ne soññ naa la ko pour ñu tàkk jabar ñu ne ala ko du ñu tàkk jabar ñoom li ñu bëgg mooy ñëw ci sama kër gi def ko genre euh, waaw Tafa koy charmé Tafa kii ngay charmé. Tafa Tafa. mais mais mais mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison je veux non non. bàyyil may wax nga di ma kobos j'aime pas ce que tu fais bëgguma ko bu may kobosati. gis nga ñett ñi bugguma ñu indi ma benn problème ah da nga ñëw pour vacances vacances sa sa vacances yéen ñi laay waxanteel kii amul leen daxal lu ngeen koy wax ok célibataire la na yéen mais bu leen ko doxal chérie oui là je stoppe ah, ah arrête yow yaa ma wax ne ñoom ñett ñi ñëpp ay célibataire endurci lañ mais bien sûr waaw man maay bu mag bi ah, yow xam amu jëkkër mais su ma si gisee koo xam ne moom neex na ma bëgg na ma ma bëgg ko pourquoi pas sax ma sëyal ko. vraiment vraiment. Ah, ah, wala yow da ngaa bëgg nag ci année bu bees bi nag ma am ci jëkkër nag yow tamit lii la la. ah Ba looy jooy. kii. eh pourquoi tu pleures qu'est-ce qu'il y a. Ba wuy ku looy jooy day niroog sama yaay. ndeysaan séeréer la ak a góor rek. xanaa quand même doo doo doo xaan ku niroog sa yaay quand même. wuy ma sëy monsieur Seye. ndeysaan. Oh. Ah. Oh. benn kanam. muy safar de sama yaay. Oh. bul jooy bul jooy mënul sëy sa yaay nag toogal ko. baax baax yow mënoo sëy sa yaay loo xam ne. non non non sa yaay day sëy sa yaay. si da nga calmez-vous calmez-vous toogal toogal ma régler seen problème. sëy day sëy mu ak sa kii sama Sophie ah, wu ma man man des man man Sénégal dama fay man sama jumeau man moom xaw ma kan. mais nuróowul sama yaay. nuróowul sama papa. yow pour départager leen ñun ñëpp coow hmm. la ko ñaan mais ma gis nga maa ngi fii pour 15 jours. comme yéen. ku ci gën a mën a defante ku ma gën a mën a bégal ci côté bu nekk nag. maanaam yaa ngi sama xol yaa ko fay dox fajar gi ba jàmm suñu sentiment rek ah ay sentiment la rek sentiment wu lan yow looy meles ci ku baax lekk bi ba lekk puli eh. eh. man siyaas day man jëli damay yëy si ngob ah Sophie xaar ma ñëw <laughs> non mais Dakar mu ngi tàng neex temps bi neex booy je te nga dagg bi ñëw je te il fait trop bon ici je te je te promets ma chérie bonjour ma belle. ça va bien. bien dormi. waaw bien alhamdulilah. ça va mm. au Sénégal dafa neex a nelawee tellement. non. et ma puce je te d'accord il ma copine. ça ma chérie. Allez bisous à tout à l'heure waaw bàyyi ma coupé Sénégal dafa neex France moom toog leen ci sedd bi rek ngeen bàyyi ok à plus à plus laisse vivre waa France may ñu ma je te dara dara dara amuñu vie nag non dinañ am vie nag mais yaa ngi ci jàmm. maa ngi nii ma belle naka suba si. ça va bien dormi. et toi ça va. kër gi mbaa déjeuné wu ma fi. non du tout dès que ma yor dafa xaw a bëri wax xaw a strict tuuti. mais da ngay comprendre. genre am yi dañ ma neex dañ lay dañ lay dindi sa stress. dafa neex man dund ma ko de man sama dund bopp laa yor mu yor dund boppam. kese sëy ñu boole yaa ngi. noonu la sama waa ji man ngaa gisee ak Antoine Félix pour autorisation port daal li nga sol nii. sol lay maa leen dàq sayt yi yéen ñëpp maa leen génne sayt yi. yow maa leen génne yi benn a la xam. lan la dafa xam. simi ko. mooy problème mi leen nga amee. yaa ngi mën a ko fanaan ci doomu daal. doo écarté fii tuuti mu fee. daal yi xam kenn ko sol di génn. doo bëgg lu xew bi jeex. yow te ngaa dem Petersen comme da jaay kaset kaset bay yaa ngi ma kaset de kii c'est normal yow toppal di ma xam nga moom yow looloo xam ne moom laa bëgg man kay dama bëgg a xam rek confirmation laa bëgg confirmation laa bëgg na marché laa jëm nii dama bëgg a dugg ci kanja baa dama nga nam ma sama plat préféré li ma ko bëggee yore yaa ko na togg xam naa loolu naa supp kanja supp kanja ba nga xam ni diwtiir bi ma yor moom Casamance la jóge directement maa dem gaar ba jële ko ci bus bi ñëw teg sama choix réerul tax ma bëgg la dagg sama biir pour ñëw fii ma la wax koŋ ya ma yor kànja ba ma yor bees ba mu bees bu ma la supp kànja lay tay damay ragal ngay ñibbi dama toggal moo yóbbaale maa ngi lay bu ndekki bu ndekki fii ma xoolal wuy ma ndekki bu oyof laa la defaral mi ngi ci waañ bi ma teg ndekkil de damay bañ nga yegg France ñu naan dafa rës léegi ndax kër naa yaa neexul. su fekkee ne damay togg tey du ma ndekki demal marché te ma dooli la ma dooli la dara. bàyyi ma man ma dooli bañ a dooli. bàyyi ma bëgg nga régler laa la wax fii dara waru fi xam la laa bëgg. happiness teranga Sénégal la wax dama lay gënal berneel la sa heure ñibbi bu jotee ma waajal la nga ñibbi. maa copine yow li ma bëgg la sama ñu bëggantee dafa yàgg nag amul benn naturel. tout à fait dégg nga prends soin de toi. d'accord y a pas de souci. Mm, mm, mm, je chez moi ah kon jeex na te aussi mon bébé. ok au <laughs> eh, ngay def ne wala mu nokkal la. Eh, yéen a ngi taxaw. ak élégance. laajuma laajuma. ku lay ci booy bi. koo soxla woon baax. yow naan yow bàyyi naan baax kii. demal wóolu ma xale bi dama ko soxla. yow gaaw. ah. nekk da nga jaay séeréer. ah boo ko teg boo booy bi. yow tam booy bi. waxoon nañu man ak moom ay pulaar sax. nattu ko Pando. gis nga yow foo tardé sa rajo bi moo la fa tardé leen ma wax leen gis ngeen dafa teel doxaan dafa am heure audience doxaan dañ koy ut ngeen bàyyi ba 19 heures 20 heures sax ngeen ñëw. Mm. ñu teg attaaya waxtaan mais fajar mooy cappantati man moom xam nga mm. lan la doo leen manqué di ma manqué loo moom mi ci biir di nelaw comme da ngeen bëgg a doxaan. ku nekk ànd déedéet. ñoom ñoo dégg damay doxaan ñu toog non la question def leen affaire de jiitle leen ngeen dem yee ko bu fekkee seen xel. may na leen ngeen yee ko ngeen dem yee ko wax ko seen sentiment heure bi man moom je suis bu nekkee gis ngeen man moom je suis sérieux man doxantox ma dégg man soxna laa bëgg jabar man benn xol laa amoon di bëgg bëgg naa njool ba pare yéen yéen a yos seen xol di bëgg te da ngeen bëgg jabar ngeen bëgg boo leen gisee sufi ngeen wax ko ko man damaa nekk ci yoon macha allah jëm doxaan secteur bu musuma xam yow Zoro lan ngay bànni bànni sama kaw. man de yow bi ngay génn da nga war a seet. yaa ngi mën a ko teg ndefu nag sa bopp bi. xoolal xoolal xam nga kii du gis yool bu nekk mel ni man njool bu nekk si kaw di xool ñi nga xam ne bi ay prématuré lañ yéen ay prématuré ngeen seen lampa yëggul man bokkuma ak yéen gosi leen wala ngeen droite fii maa de. bu dee njool mu yambar nag bu dee njool mu yambar nag dégg ngeen ni daal boo ci français jógee rek ngeen di français français. kon <laughs> boobu thaïlandaise la <laughs> thaïlande la jógee ca ceeb ay ay chien ay kii kii bàyyi mooy bay ceeb ca thaïlande yoo xam nga dawal foofu rek silas comme noonu la demee ku nekk na téye koyam ku ne na téye koyam ku ne na dem si koyam ko ku ne na dem si koyam laa wax nekk na dem si yow dafa ah. demal sa koyam baax demal sa koyam man man toog ci sama koyam wuy yabal ma ci sama coin. moom laa la wax. waaw loolu laa bëgg dégg. loolu laay wax la. demal sa coin. mais li nga wax nii da wax fu ñu lay comprendre hmm. di nga bugg a yàq wax demal sa koy demal taxaw ne sa koy wala sa tuuti nga féex sa tànk baax munoo taxaw ngay ni bay mille cinq cent ah su dee sa biir day métti nga wax ma daal gos moo serré <laughs> gos bi da solo ma di moo tax demal ne sama cóol cóol nag lii li mooy cóol cóol nanguwul wax day suuf suuf lay jox. bis wax naa la ñëwal Sénégal Sénégal dafa neex de. attends je te rappelle je te rappelle d'accord bisous. ci moom lay lay. yaa ngi nii war a fay canal bi fayoo ko ngay xoole ba ñu coupé ko tey seetaanuma benn série novelas lépp ma raw tey ah lépp lépp lépp raw ma ndax yow. mais chérie dis pas ça yow tu sais très ni man sama bopp bi surtout sama gars yi nga xamante ni tout le temps heure bu ne la ñuy dugg ci kër gi kër gi man dafa mel na ñoom ñoo ma loué. fekk yaa ngi sol noir fumé bëccëg moom lu ne mën nga kaa fàtte. non non rayon du soleil bi xam nga sama ophtalmologue daf ni ma il faut que may may moytu les rayons ultraviolets tu sais très bien que ni loolu day joxe cataracte et ça j'aime pas du tout. ba pare jël say airport ne ko nopp sa biir ñoox sa biir nopp nooy déggee yow lu nekk mën nga kaa fàtte lu ne mën na laa raw jamono ji euh, sinon Canal Plus bi ah t'inquiète même pas fii ma toog laa koy fay ak Orange Money boo fayee ci sa Plus da ngay dugg fu la neex ci say chaîne chaîne bu la neex ngay seetaan canal pendant quinze jours yaa loolu neex di trop mais des na hmm. chaque semaine mën nga am chance su gagner quinze mille francs et au tirage final tu peux avoir aussi la chance de gagner cent mille francs mais nag offre bi mhm. janvier mu jeex ah 31 janvier 2020 bii kon ku yebul profito fay ci sa Orange Money euh, Canal Plus et puis mu jeex. Ah, ok boo gañee première 15 moom mën nga koy may. non les mendiants amuñu yëre bu ñu sol. dafa sedd. il faut penser aux mendiants ñi nekk ci les enfants là. si si loolu moom dana leen di xom bu ñuy lux luxi. kon deuxième deuxième 15 millions bi moom non. tu en ah ça va ça va ça va bien naka mu. tranquille ñi nga defaat si si journée bi. gis naa la maa ngi sa ginnaaw. en tout cas sama xol sedd non non je t'avais dit que les 4 millions 500 c'est pour c'est pour Pipi tu vas la voir tout de suite. c'est pour ma tortue non yow am nga jëkkër ju doy waar. vraiment <laughs> yéemu déggoo man la sonn ma de. moom ni mu mel rek man noonu laay. mais il est pas normal quand même. si on se dise la vérité copine mani. kii xam naa ko bu baax yii lay def ak yeneen man nu mu mel rek laay sëy ak moom. bëgg nga ko ci nii bu baax. <laughs> maa ngi gérer mais j'espère que yaa ngi ci jàmm. waaw ak voyage bi nag daf ma jàpp ba léegi nii mais ça lépp. mais ça va lan li ma ci dellu ginnaaw. Oh, du ma ñibbi kuy yoon du sa kët te gis nga sama gaay sama ñetti jëkkër yi boobu ba tey ñi ngi jaabante ci kër gi ba ma lay tàggu di dem marché keroog. dama génn sama néeg rek yam ci ñoom ñu rangaloo naan ma ma kenn ki naan ma xam nga baax dafa am caay-caay naan ma lekk bi keneen ki naan ma ñu ñëpp a ko soxla ma ne ko may leen ma je duggee sa néeg waxuma dama la tàggu rek ne la marché laa jëm mais boobu maa ngi leen bàyyi ci biti ñu toog waxal ak ñoom nag létt leen maa nga firi leen copine man maa génn gis nga bi nga demee noonu fekk may wax ak euh, waa France waaw sama sœur bi di ma woo Maguette yam ci ñëw dama choqué wu. looy wax ni j'étais tellement choqué ma lay gisee seen xeetu sañse ku nekk kii di lamsal kii di biiñ kii di làmmiñ kii di man dama dama j'étais choqué. dañoo dañoo kii nag de ah, man xam naa li ma yor de mm-hmm. xam naa bu baax li a xaw a ndab ko. je vais ma man dinaa leen wax ñu ñëw ku nekk ñëw déposer CV yow yaay toog nag liir kan nga ciy may contrat xaw ma nag. D CDD ngay def xaw ma CD yi. bu mu leen mënti wax nii leen jàkkaarloo nañu koo xam ne. Ah. bëggul yomb na métti rek. salaamaaleykum. ah maaleykum salaam chéri Coco. Goro. ah application bi day changé. maanaam dakal garab boobu. léegi laa nekkatuma ah, jabar. lu may <laughs> waaw ba tey baax na. naka affaire ma ah. droit au but. luñ fi nekk di tendee fal ak di xëcc di sori waxtaan na xale bi hmm. xale bi dafa bëgg góor bu koy génnee di ko yóbbu resto di ko toppatoo mais tamit di ko wan la nga xam ne xamu ko woon bëgg na góor bu koy protéger boo leen génnee ci biti yaay géré côté xaalis moom du problème ndax moom 10 ans dafa liggéey 10 ans yëpp Europe yor na ay orom yu bëri te ñeme na ko def ci góor mais ci kaw góor bu ko comprendre xale bi dafa bëgg góor bu jantal góor buy incarné di frimer góor ba nga xam ne bu génnee ci biti day sadik boo duggee ci biir néeg bi day nooy nepp ne xaal bëgg na tamit ku koy boot di ko gili-gili day liggéey 7 jours sur 7 Paris kon mënul ñëw fii teg du góor bu koy stressé góor bu koy yombalal léppam la bëgg boo leen dem resto ak resto bi nu mu mënti chic yow ni nga mel rek noonu ngay mel sa comportement moom bañoo ñëwal naturellement góor bu galant la soxla góor bu correct góor bu am yërmandem ba pare xam lu mu bëgg xam lu muy bañ. woo nga ma ci sama manin nag. bëgg na restaurant trop nag loolu wax na ma ko. Maïga bëgg eh, looy def Maïga. omelette. lu muy doyee omelette nen bu ko toj. Sophie depuis ba nga atterrir ci avion bi ba wàcc ba dugg ci Sénégal dama ko njëkk yëg ci sama yaram ma xam ni. am na lu bees lu ñëw ci réew mi. boo xoolee ba xool <laughs> maa ngi def loo xam ne sax gëj naa koo def ci sama dund muy doxaan. man ni ma lay yëgee ci sama xol bi maa ko kam ak yàlla man ci sama suufu xol bi laa lay yëg. am na loo xam ne dina la dama am CV ci doxaan. dem na ba romb nga sama xol bi léegi yaa ngi ci sama saa ndax kon bu ñu ko demee ñu opéré ko ñu changé ko sax mbëggeel bi mun na dem kon bu nekkee si deret bi du dem toog naa semaine yi munumaa lekk munumaa naan munumaa nelaw finalement dama dem hôpital ñu diagnostiqué sama yaram xool kaw ba suuf médecin bi moo ma ko wax moo ni ma Moustapha yow amoo benn problème mbëggeel moo lay gaañ sa teen neex na ma say lèvre oyof comme risla nga may saf ndoxu koko jaral nga ma dem ba tor ko jënd fa ariko ak ndoxu koko naan la séeri koko lii bu la doyul xaw ma lu lay doy man lii suma patrimoine la moom sax laa la bugg a booleel ma may la ko pour ma développer première de la jokaale la ko mañatu fan la ku ne am na ko. su ma la takkee yàlla def na dama dëkk kër famille mais dinaa rente ba am sama këru bopp dugal la ci même bu dee pantere ñu buuxante fa mu mel ni mbëggeelu kaña. tubaab nag wax na ko l'amour c'est la maladie ne parle personne ne parle de les soigner ni le docteur ni de de la malade. et puis moitié paccal bi nga def nii rek boo defoon ñaari paccal yi àdduna bi day waaj gis nga lii yëpp dafa bokk ci li may gaañ ci yow. xam nga lu mu bëgg Sophie héberger ma sa xol je au fond de mon cœur comme le poisson aime l'eau de la mer bu loolu weesoo maa ngi sant sama ñaari waajur di sant suñu waa koñ ak mère bi ma yar mère Assou Gueye <laughs> beneen bi may waxaat nag pour mot de fer mooy yàlla dénk na ma ko de dénk na ma ko de mun naa dem fii boo teseet normal waaw du ma loxal du ma yox yoxi waaw maa la ko wax. prends mon fiançailles s'il vous plaît prends mon fiançailles prends wala je vous laisse pour te réfléchir. ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw du tudd seen tur nag yàlla def na day sawlal pisser de lii lay def ñoom waaw mu loolu laa lay wax. man moom macha allah wér naa biir wér biti yaa ngi may blessé bàyyi li ngay def surtout ñu bàyyi di ko macc maccant yi nga koy def ah li ngay def xam nga yaa nga tey li ngay def prend moom finance yi jaral nga ma saaku yemb si caay wala ma ngemboo courant di daw boo géej waay dellu sax dem fóote man jaral nga ma. kontaan naa ci gis nga. man maa la bëggal sama man maa la xool gis la bëgg la bokkook ñoom te du yàgg ba ngay ñoom. waaw ça va bien ça va bien merci. Euh, attends cinq minutes bëgg naa brochette bœuf. Euh, kilo dibi aussi. Mhm. di lu saf bu ñor ah. ça fait très longtemps aussi. il ah, faut pas oublier riz cantonné. mais bien préparé. d'accord. Euh... entrée bi dama indil salade chou. salade chou d'accord. am ngeen jus bissap. nature. nature voilà. aussi. s'il vous plaît, pour tout suite, d'accord ah, Vas-y, bébé. Toi, tu prends quoi euh, C'est. moom li mu li ma commandé yëpp ñaata. pare pare non dama ko bëgg xam léegi. quarante deux mille deux cent la. ah. quarante deux mille deux cent. qu'est-ce xam nga kii café saaf. pardon saaf. café am bébé café saaf pourquoi. tu manges pas. je mange. Euh, ma sorti café bi ñaata la. café bi 1500. benn kaas. am nga kirnaa. andil ma kirnaan. seet ko. andil ma kirnaan. bébé. mais kër dox pour la. dañu man man man man man nga andi li toll lu tolloog lii. ça c'est comme je comprends. Eh? ah. ça dépend yow rek. andi li tolloog yow mën nga yem 2500 francs nga ni moom bu may indee resto lu ñu wax nga ni dafa bëri nga fi indi ay 2500 monsieur pardon c'est le plus la peine. Ah, ok merci. xoolal eh. indi ko borset. salade 1000 francs. 2500 yooyu jënd ci ndox mi daanaka fay la. léegi nag mu jógee fii may nga ba la wala nga toog ñu jóg. serveur. jox ko si jinjeer yee benn. jinjeer ak salade de fruits am. ci gàtt laa mën. oui bébé. yaa ngi toog. non maa ngi bërëngu. tey ngaa toog te ba bërëngu bi. mais yaa ngi gis maa ngi toog nga naa ma est yaa ngi toog. waxin la rek xam nga ñun femme sénégalaise yi dañoo joŋee. dëgg boo fekkee sa jëkkër toog danga naan ko yaa ngi toog genre yooyu noonu tooñ ko. voilà mais il faut être objectif aussi. d'accord ah aussi du la tere aussi nga xool li fi ne nga wax ko. <laughs> waaw loolu yëpp ci xeetu joŋe la. <laughs> c'est vrai mais j'espère que lépp jàmm. waaye tout va bien à part que Pipi me manque. et qu'aujourd'hui c'est son anniversaire alors qu'il n'y personne qui doit ci benn pensionnaire laa ko mu joon bàyyi donc il faut que mu fête ko. xoola ginnaaw ba yow fetaar nga loolu mënatuñ ci dara. Hmm. sama nijaay Alioune Fall xam na ko te mu nekk Italie xam na ne décembre lañ toll nee na ma sa jëkkër ji dafa bëgg ay fête xaar ma. jàppale ce vieux con là qui qui me disait que te ay tànku bàjjan. ay sama nijaay tànk bëyu nijaay. moom la ki la laaju mbéy mi yaay ma ngi may takk. voilà mais est dama yoroon jamono yooyu ay chèvre. cest à loolu la ma boole woon ak moom. moo tax bëgguma ko woon gis ci mariage bi. te na ma parle plus de lui ah. moom nag moom mu yónnee xaalis. ah bon. moo mu yónnee xaalis ne ma comme fête yéen a koy wàcc te sa jëkkër dafa bëgg ay fête xaaral ma jàppale la ci. dem mais mais Naya le pourquoi ñu la yónnee xaalis le pourquoi ñu la yónnee xaalis sama yor xaalis Naya même lu dee jarbaatam nga may t'as pas besoin de son argent t'as besoin de mes de mes pour pourquoi ñu la yónnee xaalis. d'accord maa ngi jégalu léegi nag maa ngi dem ci point cash bu nekk fii juste à l'angle damay jële xaalis bi ndax via tap tap sen la ma ko envoyé te instant yi foofu laa mën a dem récupérer xaalis bi maa ngi dem ñëwaat léegi duma fa yàgg. toogal loolu laa doon eh toogal. toogal xaaral ma dem ñëwaat toogal. sama application. waaw. ñu ngi ak sa application Orange Money su la yónneetee xaalis à l'extérieur. Mm-hmm. tap tap seen boobu ngay wax. Mm-hmm. mais dugal ci sa application nga dem soldu. waaw maa defal international. international. bu la neexee nga dem retirer xaalis bi gratuitement bu la neexee itamit nga daal di koy transférer ci sa compte principal où problème. Ah, léegi transfert laa ko def ci demal nga def ko transfert euh, ci sa compte principal. waa bébé du gunna di ah yu orange mu ne gën a neexati. c'est très simple lu yomb la. mais s'il te plaît. Euh, euh. sa nijaay bu la doon naree yónnee xaalis ne ko sama jëkkër am na xaalis ba mu doy naka garder pour moment wala mu yónnee ko kii pensionnaire bu pépinière bu mbuux ok. bébé doo modeste tuuti nga simple tuuti. nijaay ak jarbaat loo ciy wax moo am envie am yéene yéene ma xaalisam yónnee ma bàyyi ma mu jox ma. mais yow dan ma la may wala dan ma la abal. dama lay laaj dan ma la dan ma la may wala dan ma la abal. loolu moom du débat moom loolu moom du débat. tu es ma femme. d'accord toppatoo ci samay ndigal. waaye sama ndigal sinon je garde la la la clé du paradis ah yàllaa ko wax. yàlla moo ni sa clé du paradis mi ngi sama poche. Ah, fais attention ah sinon je vais t'envoyer à l'enfer. bu ko denc ah qu'est-ce que ah. c'est que seen manière de Zanzibar là. ah la yónnee ci xaalis. ok. léegi anniversaire bi nga ne nu muy euh, j'aimerais que ñu defal ko symphonie. tey moom tout est permis non gën ñaaw ko gën ñaaw ko. non lii lay. ah non mais quel anniversaire. mais quel anniversaire. l'anniversaire des de de de avec n'importe qui. parce que. mes jours des anniversaires me rappelé mes jours des anniversaires. carrément mes amis humoristes c'est partout. et puis bojo bojo. il n'a pas mojo mojo. mais vous parlez français et moi je parle français. tu tu vois Naya il est tellement belle. ah <laughs> mais lekk yi neex na. macha allah macha allah. su ah. fi lekk yi neex na. macha allah. neex na neex na trop da nga si loxo ah, yow mi tey. ah merci eh, bébé. Euh, j'espère que j'espère que les mains ont été si délicates et si délicatement servies. Ah, ah. Euh, de cette ah bon mu ne la c'est bien donc j'aimerais juste euh, faire un témoignage mm. sur mon ami mm-hmm. à qui il m'est il m'est toujours fidèle. Mm-hmm. il m'a toujours soutenu. et dans les moments les plus difficiles en France. Mm-hmm. à Paname surtout. Mm-hmm. il m'a soutenu. Euh, mu nekk ay moments yu difficile yoo xam jotoon naa ko dund en France parce que jamono yooyu maa ngi doon fayeeku semaine deux mille cent euros. Oh! c'était c'était c'était c'était très difficile pour euros. en Europe C'était très difficile pour moi, c'était très difficile. Je ne parvenais pas à joindre les deux bouts avec ces 2500 euros. Et Pupi était là, heureusement. Euh, Pupi était là, toujours à mes services. Euh, moom ma daan jàppale d'ailleurs Pupi bu ma ko daan jox mu lekk bu gisul ma lekk du lekk ah. ah Pupi moo nekkoon man c'était des moments très difficiles des moments de solitude. vraiment. courage pipi nekk koo xam ni. yow kaas bi ngay man ah s'il vous plaît s'il vous plaît nekk leen ci ngeen waay mari bool. ah lii baaxul waay mais kaw ànd ak ay ngaak moo gën a man bari ko Tafa Tafa. non sinon j'arrête tout ah. non non non ki may wax ki may wax daf ma soxee ci xool. ki may wax daf ma soxee ci xool. waaw nekk koo xamante ni je te jure il m'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oh. Je peux dire que il fait partie. ci moom. je me rappelle am na benn film. non non non non. non ko yàlla yërëm. non non non il n'est pas mort. Ah. c'est son anniversaire aujourd'hui il n'est pas mort. Mm. Mm-hmm. je me rappelle un jour ñuy dox mm-hmm. Champs-Élysées mm-hmm. am benn xaj bu may ñëw di songu si puis a pris tout son courage oh il m'a défendu gàjji xaj bi kolat ko ci bët oh. C'était des moments émou émouvants et je suis alors c'est en ce moment que je suis que je peux compter sur Pupi. Mm-hmm. on est rentré. Mm-hmm. je l'ai regardé les yeux. mais kooku da nga ko waroon takk deuxième ndax ñu mel ci yow. Ah, non non non non non non non Pupi c'est un mâle. c'est un mâle. Mm-hmm. c'est un mâle euh, ah, cest xam nga am na am na am na muus yoo xamante ni boo leen amee. il faut nga. liñ la jox ceex biñ la jox nga delloo leen ko. et bëgg naa aussi. jibi ah, jibi sama terrain bi ñu jibi nga baal ñu. Euh. ki ngay defee anniversaire nit la wala kan. kan lay euh, sama c'est mon chat. ah jibi chat. oui muus. muus. ay yàlla na yàlla jéggal. Ah, astafurlah xew. ah laa wuy si. saafara baax tafa. naan rek yow tafa commencé nga muus kay eggale ko muus rek. bu leen nekkat di wax bu leen yàkka noos bi. undu lay undu. ah ah undu. ulul kot. Eh, yow tey. jël ulundu ngay teg bosam. daa am kóllëre rek non non non non non non. ay Tibi benn polémique y' a y' a un compro non non je vous je vous. ay ah, non non Tibi am na loo wax ah. xam ah, ah, yow mi yow yow lay wax. problème. def nga li ngay def. manipulé nga ne. wati nga rek manipulé nga nu ba def sa anniversaire di wundu ba pare jërëjëf. ulundu nga wax ulundu. ngeen baal ma de. Jibi leen laal bëgg a xamal. mais xanaa mais qu'est-ce qu'il veut en fin de compte. Eh, eh, eh, mais mais je dis yaa xam de. lenn laa la bëgg xamal. anniversaire anniversaire Mouss moo tax nga dajaloo ñu nii. Oh ah di di def ay poème dama ko yéeram sama kóllëre la gis nga jibi duñ sa morom. da ngay respecté nit ñi. respecté doomu aadama yi baax. ne nga sol sa verre ma ni soudeur métallique duñ sa morom. xam nga baax. nga nit da nga war a xam li nga moom ak li la boole. bàyyi leen di jéem a pénancé pénancé lu ay ay ay ay vie yu bokkul. man waxuma loolu. fi Afrique lii est-ce que lii sax bosong la sa reste eh, tranquille la non la attendez quand même. anniversaire Mouss mais loolu dara nekk aussi. en France nous dañuy fête anniversaire Mouss. lu ah, nekk. ah bon man déjà man dama Mouss boo xam ne ma ko fête anniversaire dans 15 jours. elle s'appelle Mimi. Mimi. ouais. waaw mimi sax moo gën mooy dàq bi. Ah, moo gën anniversaire jigéen ah loolu moom. c'est normal ah, bu dee mimi bi jigéen garaaw. ah anniversaire la anniversaire. moom moom jigéen moom day am yërmande. nu mu tudd. Mimi Loulou wala Mimi. happy birthday Mimi happy birthday Mimi. s'il vous plaît du ngeen koy yeggale ah, je vous je vous demande juste ah dama leen di wax benn affaire bu ndaw ngeen xam ko jóg leen ngeen génn sama kër s'il vous plaît jóg leen ngeen génn sama kër. ici si bul ma wokk bàyyi di ma ko kobos pourquoi nga may kobos. non pourquoi nga may kobos. anniversaire pipi yi ne noonu baaxul anniversaire mi may baax. génn leen ci biti. génn leen ci biti non c'est bon te ngeen kaas yi foofu xam ngeen fu ñu ne. noo mm. te nga génn ci biti s'il vous plaît Tafa. Mm. merci. Tafa da nga mun a encaisser torop doo joguñu dem. s'il vous plaît eh, eh, doucement de. Eh, waaw kon Bakay non non non sortez Bakay allez sortez. sortez ah, donc vous ne voulez jëkkër ji na waar man la sama kër yi moo fi am man damaa sax waaru di toroxal xaritam suñu bos mais nangu nañ sa anniversaire ah, de tamit anniversaire mi mi laa lay tegal dañ laa ko fii ah ëpp na daax na mu sotti <laughs> daal bëgg naa lii tu as mm-hmm. yaa ngi toog maa ngi nii bërëmu ça va. ça va bien. am ah na moo fi dugal facture bi ñëw na léegi facture ndox bi. ah bon. Oh. c'est pas compliqué. ba ma fay ko ak suma compte Orange Money. da nga koy fay léegi benn mais bien sûr affaire bi compliqué wul boo xasee ba am sa application Orange Money. tu peux faire tout ce que tu veux sans problème. daal xam naa payer tes factures que muy Canal problème. daal xam naa ni wóor na. non dafa noppal yeewu fajar di daw rang wi ji agence kenn defatu ko. Hmm, hmm. xewi na xewi na loolu xewi <laughs> tànk daggul doo bàyyi. sëy. <laughs> Euh. sëy ça va. Kaaw ça va. kii Kaaw nga de. sa rajo bi rek ma koy def. waaw waaw gis nga. kaw yanu nga jamono bi temps yi de. temps yi sax gis nga. ça va sëy. ça va ça va bien. ça va mais sëy moo gën a moo gën a sañse. waaw lii moom yàgg na ci moom. loolu la mais s'il vous plaît parce que je dois travailler là. et si possible euh, est-ce que mën nga dem. non damay. dinaa dem sax say tànk. waaw dinaa dem sax comme dama amoon rek. lu lu ma ñëwoon pour laaj la. Mhm. ndax wax dëgg yàlla amuñu nubb sama xarit nga yàlla moo ñu boole ah am léegi nag benn mbir moo am moom laay ñëw pour laaj la mooy Sofia dafa bugg ma ne ak moom ñu dem restaurara restaurara buy restaurant restaurant <laughs> <laughs> waaw pour ñu gën def promenade de la natte foofu noonu ma ne ak moom léegi ji bi promenade bi yéen a koy def ci biir restaurant bi. waaw si restaurant arabe yi. lay def ko da war a ànd restaurant waaw man ah, def mu corrosé ma ma corrosé ko ñu dem. c'est la la wax wala euh, reer. bébé xam nga loolu ñu demee foofu dañuy wut lu ñu lekk reer léegi nag ji bi hmm. na xam nga dama am loo xam ne dama ko xaase tam ma hmm. léegi dama bugg a si nga xelal ma nan lay demee foofu musuma dem foofu waaw. musuma dem foofu. musoo dem restaurant. alhamdulilah musuma dugg ma te xam nga bugguma mu xam si dara. Mhm. léegi dama bugg nga wax ma nan laay sañsee nan laay solo réglé waat sama orloge si toog bi ba keroog may. waaw jëf voilà. bandi. je, pense que euh, d'abord un restaurant mhm. d'abord. du n'importe quel restaurant ngay ngay ngay da ngay chercher les restaurants de quatre quatre étoiles cinq étoiles tu vois. restaurant de quatre euh, étoiles. non non non quatre ah, étoiles à cinq étoiles. bare na Ndakaaru ah. ah man mën naa la recommander pas mal de restaurants yow mën a dem. Hmm. tu vois surtout ceux qui se trouvent au bord de la mer. comme ça vague bi mer mooy. géej géej ah géej nekk ci taatu géej gi. ça c' est vraiment c' est plus romantique. ak vagues yi ni muy dalee noonu. dama koy gis. brise bi waaw. de lune bi. et tout mhm. ça nga tànn benn moment bu propice surtout ay moment de clair de lune. ça c' très important beneen bi si des mooy nga jënd fleur yóbbaale. fleur fleur. am na fii si suuf damay dagg rek. non pas yooyu. Hmm. des roses. rose fu ñu foofu ñu nekk. am na ñu koy jaay dinaa la recommander boutique bi. nga jënd rose yóbbaale ko pour bu ñëwee nga accueillir ko loolu. Ah. mu toog euh, bu toogee yow sa bopp da war a sol correctement euh, yëre bu rafet. yëre tubaab ko daal yëre tubaab <laughs> bu rafet. waaw tu vois. mun na sol jaayee sax. Hmm. nga parfumé wu parfumé bu léger ah. les non pas lis koleñ. ni baxuur ni lis ni hmm. sarxatan. Ah, waaw yooyu. waaw waaw maa ngi fekk ay parfum de classe yu baax. mën naa la ci jox ay collection privée. Hmm. Hmm. tu mais boo toogee toujours sa fourchette. gauche la lay féete. paaka bi. droite. amul toog restaurant di xool ci taabal bu ne non non restaurant doo toog fu ne nga gëstu. Eh, toog correctement non toog. pas concentré totalement mm-hmm. mais relax ok. Mm-hmm. ensuite bu ñu ñëwee. Mm-hmm. ngeen tànn seen menu xool li ngeen di lekk ngeen def seen plat d'entrée plat résistant. dessert ñetti palaat moom ngay lekk ko. waaw noonu la ñuy lekkee au restaurant. ensuite collation yi ñëw. ndox mi boisson bi. verre bi ngay naanee ndox. du moom ngay naanee boisson. <laughs> ok ji alhamdulilah rabbil alamin jëf wuy ma ko wuy ma mm. bul topp nag ba mu tubaabee ba mu ëpp xam nga keroog ba nga fi toogee nee naa naturel la bëgg demal rek na naturel rek yow kaaw wóolu naa la de bandi bandi cey bul taal dëkk bi nag de dañ laa abal almet bi moo moo <laughs> dama lay wax dañ la abal almet bi non de rien. merci. bébé li may gis lii di raam ci ñag bi la jëm te bu fa yeggee du am place. li ma metti mooy xale bi dañ leen lekk ba nu. jeex te bëggu ci kenn looloo ma gën a metti. ku ne bëggu ci kenn bébé. ah je ne pense pas. moom moo yor xolam di bëgg yow sa xol jox nga ma ko. ñii xam nga lu mu leen di doy. c'est juste pour divertir kii vacances moo ko fi kii boo ko xoolee xam ni xale yi attanuñ ko waxtaan nañu waxtaan nañu. qu'on se dise la vérité sa doomu ndey soxlawul nii ah. waxtaan nañu waxtaanu biir nekk te waxuma loolu. bàyyi ko rek sentiment kenn du ko caxat caxatee ak di ko fooye. waaw ah, ñii ñu ngi jàpp ni di leen bëgg wax ko bëggu ci kenn. loolu c'est pas bien da nga ciy maanu rek. ku nekk daal yaa xam li nekk sa biir moom waxoon na ni 15 jours la fiy def maa ngi wàññi ah. lu reste peu de jours bu ko teg stress ngir yàlla bu bëggee def un stress non non bu bëggee def un mois sax bàyyi ko kii sama nawle la sama xarit la baña lu ma dara dégg te yàgg nañu xaritoo yàgg nga ko xam sa jukko tubaab bi nga war a bàyyi ñun Sénégal lañu nekk de nekkuñu Paris fii pays de la Teranga la yaa ngi dégg bu ko xool bëtu ñibbil bu ko xool bëtu trois jours la fi dese xam naa la miin naa la caay-caay boobu nekk ci yow rek laay jooy ci yow sinon amoo beneen problème añ Euh, s'il vous plaît euh, apporte-moi mon caviar s'il vous plaît yaa ngi dégame de oh. Noël copine. merci. naka Noël yi foofu en France ça se passe bien. non cadeau kay yow yaa ma war a jox cadeau. ma belle vas man sama cadeau dama bëgg nga envoyé ma xaalis via Orange Money mu recevoir ko fi mu toog mën a def samay frais. waaw bien sûr international mun naa recevoir xaalis kay via Orange Money bien sûr d'accord. oh oh bébé ni condition la laaj de moo tax ma daanal rek. Oh. oh joyeux Noël. ndeysaan. ak sa sëy.

how much. Noël yi ah. yàlla na yàlla defoon nu xéwal. how much. macha allah ok ok. Ah. Euh, ah. merci. merci. Euh, c'était vraiment beau. oui oui. fekk loolu la way ngeen. Euh, c'est bon mais sama heure tëdd moo jot merci à demain. Viviane nag noo gisee sama soirée ak yow tey. macha allah. macha allah je savais pas que yow mën nga lii. xaw ma ni galaawee nga nii. <laughs> man weesu naa loolu. lii sama xol bi sedd na. macha allah macha allah. en tout cas j'ai bien mangé. j'ai passé une belle soirée. merci de rien. sama xol sedd na. de rien de rien de rien. et toi tu as bien mangé. oui ma ma merci beaucoup kay xewlal lii. Ah, naka la waaw waaw. rek ba suur. macha allah. alhamdulilah. <laughs> Hmm. en tout cas. soirée bi neex na. Hmm. lu ma la defal gis nga ko. say say bi nga dugg see rek dama daanu. macha allah. doo moromu gars yi. man dama laa xool rek nga muy nduróog Elisabeth Diouf. dëgg sañ sa macha allah. Hmm. Hmm. Euh, mais là mu ngi commencé guddi Ah, damay bañ mu gën a. toog rek xam naa tey su ma mënoon a indaale sama rajo bi waaye am nga. waaye yow moo tax indiwaale woo sa patrimoine bi. ji ak naaya ñoo ma wax loolu yëfi seer la yëfi seer la boo ko jëlee. nga dem si restaurant bi dañu lay. jàppale naax xam nga ni loolu loolu moo may daaneel si yow.

waaw so wool so pardon addition s'il vous plaît wool so ah mon bébé c'est combien 2500 ñu daal 52500 coûte c'est cinquante lan la wax da nga juum de sawaay 52500 xoolaatal xoolaatal madame lu mu wax ko. oui c'est 52 800. hasbunallahu wa ni'mal wakiil. bon mais qu'est-ce qu'il y a. xoolal loolu nag nañu waxante dëgg nag ah lii rek c'est mayonnaise tomate rek 52 ah non. ah non non yow yow naar affaire la ni mu waxante dëgg nag. ah écoute-moi écoute-moi. waaw t'as pas vu li ni mu neexee. neex na waaw. gis nga li ñu jël commande yëpp nu mu bëriwee. waaw donc jar na cinquante deux mille cinq hmm. ja ba si jar na ko kay lan la lan la problème bi. dara bu la jaralee kay. ah kon kay jeex na. jaral na ma waaye. jaral na lan la. Hmm? c'est quoi le problème. c'est que sama problème mooy trois mille sept cent 3 700. pour man 3000 fekk lépp day. yoo xam nga ñu yemuñu la yow yaa ma yem. Hmm. yow di may jëlee suuf di ma wax ay 3700 nga yor xool nga ma si ko sax waaye. c'est bon je peux payer par Orange Money. Hmm. am ngeen paiement marchand. effectivement c'est bon. d'accord euh, man maa ko def. non mais yooyu dafa. non mais xool dafa déglu ma lan moo tax nga ñëw ba fi naan ay 3500 laa yor xool nga ma. bul wàññi ak bul foofu sax. bàyyi mu tolli la 3. Sofia. s'il te plaît. vérifier si lii sax. la lii nekk. non non ça va ça va merci. merci mu yor fii. jugal ñu dem si. du ma ko doo naan sa bos bii mu jeex. doo ko naan lii. Sofia Sofia Sofia Sofia taxawal. lamb lamb lamb neexatul lamb xool lii lii lii la lii bëri la. taxaw naa sama bëri bi daa xonq. il faut ñeneen bëri. dañ lay door ci bët bu ñu lay door ci bët fu ñu door. Ah, ah yaakaar fu ñu lay door ah dañ maa door ci bët. waaye muy def bu a seetaan yi yi série yeeg film yeeg clip yi may gis tiktok yeeg foo jaar yow. xam nga yow benn benn li ma doon wax ni ànd ak ngaa ko baaxul. Ah. wallaay jëndoo jëndoo. jëndoo waaw jëndoo baaxul. waaw waaw doo yor sa téléphone nag di manipuler fu la neex di fu la neex. di seetaan nga nu mu la neexee nga naan ma seer nga yow itam. <laughs> moo def noonu gis nga application Orange Money bi. Mhm. si lay jënd crédit. dama ci jënd connexion. Hmm. sama code secret su ma neexee ma changé ko ci application bi. nga application bi lépp loolu daan tax a jóg dem ci naaj bi di dem ci seeti ay kees tak naan damay dem feek damay jaabante ci orange ak damay dafa jaratu ko. application bi ngay télécharger. jënd ci connexion da nga day yomb. Hmm. jënd ci crédit da lay yomb. Hmm. plafonné yi. bu njëkk da ngay nekk fii naan dama plafonné damay dem ñu déplafonné ma ak ngay jaabante ak yooyu léegi ci ci application bi mhm. mën nga ci yéegal déplafonné sa bopp yéegal sa compte un million deux million nga ni lan waaw waaw application bi da koo am application bi nu may def ba am ko taxaay bi tam ma dimbali. yaa ngi ma tere sax xaaral ma partage Orange noppal na nit ñi de. man da li ma naan baagante ci kees gi. Ah. dem fii génn fii tax xam sama diggante sama kër tali bi daa sori. waaw damay doxo waay waay waay. léegi dèjà am nga connexion. dañ naan PPK la Refane waaye bii fa moom. léegi application PPK la Orange. cey Orange. du faaxat day buddi. day buddi ba ca kaw. dóor ci suuf say far damm kenn moom. karaj kay. laa ilaaha illallaah rey na ñoom ñoom kelamante nag ñoom ñoom ci toron de. ñoom ñëpp xool na leen ne bëgg a rey. mais nag xool bu ma gëj a gis. <laughs> D'Artagnan yaa ngi <laughs> da ngeen aaron estasivillatu D'Artagnan ma belle. au lieu de on va prendre table de deux personnes. non y' a pas de problème y' a pas de problème je paye des deux personnes. non mais loolu ça se fait pas day am ñeneen ñu ñëw taxaw ko. non dama bëgg mu gën a yaatu langue gi rek. je t'en prie. Mm. venez venez venez accessoire. merci accessoire. merci. voilà. assis. Ah, ok. merci beaucoup. bari na. c'est gentil. tu

je prends euh, dorade braisée. Ah, droite braisée nga def ce soir. waaw gis nga <laughs> parce que xool naa ba soo non non yow ligne droite nga di. Ah. yow ligne continue nga di. <laughs> ligne continue dara ko ku <laughs> euh, baax. en tout cas riche na. riche na waaye. Mm-hmm. moom droite continuité bi la jël man maa ngi ci biir troisième bi. Ah, troisième bi waaw troisième bi. comme plan de résistance lan de décevoir ak de résistance ak plan de manifestation laa ci yemale. lii ma jox ma lii bëgg naa moom euh, euh, ah, ah. li tax ma tànn ci paa bi doo moroom benn paa. Hmm. ay ay ay caaya. parce que ñoom ñu ci siti ñii ñii dañ mën mën dana gros bët xam nga xale yi. bon waaw daal je t'aime bien xamal ah, loolu day. je t'aime mais comment en France. Mm-hmm. la vie de France. en France c'est euh, c'est la galère. Mm. stress bi foofu dafa bëri amul dara sénégalais yi foofu daal. mooy loolu daal vraiment. Mm-hmm. vraiment Sénégal daal loolu ci ma di dégg amul benn pays bu mel ni boobu. c'est le pays de Dieu bu jën. si c'est vrai vous les France vous. vie bu normal en France on vit très normal mais ah. xam nga Sénégal kenn moom. Sénégal hmm. dafa neex. merci beaucoup. waaw Cheikh lii du soosu jën bi wala. non bokkul lii jëmu ci lee. kaay eh kaay kaay kaay kaay de taxawal nii kaay kaay dalal nii dalal nii. waaw chéri yow yaa ko. waaw lii lii lii salade kase la. mais yow yaa ko mën de salade. et puis man maa la lëg laa xodd la yi ay ay salaat yi ay. chérie t'exagères ah yii lëg di dundee. waaye respecté leen nii. mais toi t'exagères mais yaa ko commandé c'est quoi le problème. bu ma ko commandé mu xool ma xanaa man sama veille mooy chérie je t'en man su ma jógee tey il faut ma dem seeti sama dentiste bi mu changé ma sama verre parce que verre yi dëkk bi am na doole doole boo xam ne xaw ma sa lu mel nii. bul ma yab ah xaw ma sa lu mel nii. eh xool ma fii regarde nga ñëw fii di aalu ji. mën naa la café gi delloo café gi delloo café gi. non lii vinaigrette la. vinaigrette la. ni vinaigrette la mu euh, entrée bi ñooy ànd yow tamit c'est pour assaisonner ko. assaisonner kam nañu fi assaisonner xam nga gis nga man dama bëgg daal vraiment nit ki am na loo xam ne sax même bu ko nit ki xam ne yow nga xool rek sa intention bopp nga représenté ko sa bopp te man lekk yi dama ko alerté. non mais taxawal dama ko alerté. yow yaa ko monté lii. entrée la. xam nga ci yaa ndar boobu. wala xam naa ne raw la. waaw xool. d'accord léegi. Mm, xam nga tu sais comment on va faire. kaay ñu bokk bu dee bëgg nga ñemu léegi nga jël man day man dafa métti. ok ça va donc prends Afrique yàqu na léegi de kenn mënu liggéey Afrique. jël jël fourchette moom àndul moom. mais eh, attends. du ma ko doxati di ko yéegi. lii dañ la ko jox pour nga lekkee ko. civisme bi ana. ci ci jën yi. baax na merci. ah ñëw waay. baax na jën bii nii leer na ma dis dix-huit heures pile la gën ci géej ñu lakk dix ma lekk vingt heures xanaa du may continuité. yaa diri sa baax yow. amoon na tuuti bi nekkal. bee lekkal. non ça va baax na. pourquoi tu manges pas. non non non soo doyaloo sama doole si léegi baax na merci vas-y. yow caprice yi lu mu topp leen partir. dinañ def sax wisa wisa wisa de. dafa yéeme algàccu. algàccu xamoon ne américain bi dinañ wax algàccu. est-ce que fi ñëw laaj ñu ko sax algàccu lan la. wëcc sa man day. ak jàmm. oh. oh. damaa naa sama xaalis dem na. sama xaalis dem ñàkk na. loo def ba jur. El sama xaritu douanier bi. waaw moom laa doon envoyé xaalis léegi léegi nii xaalis na ne dem na ci keneen. yii gars yi ma dugal dugal sa application Orange Money defal lu gaaw. waaw dugal dugal dugal léegi ay waay yow. waaw waaw dugg nga waaw demal annulé annulé transfert waaw gis nga référence numéro code boobu ci kaw bii ci kaw nii dafa jox ko waa orange dan la koy laaj ñu ngi la koy demandé noonu ñu delloo si la xaas bi dañ ngay bloqué fële jox ko lii nga jot signal <laughs> bi waa orange xanaa daa toog suñu biir saa boo juumee nag noonu mais mën naa ko envoyé waat El Hadj léegi waaw léegi nag concentré wul nag. moom mooy ambassadeur célibataire yu douanier ah! dama leen di dimbali nii rek. kon da ngay def ay aide nii. aide mooy def aide rek pour douanier rek. da ngay yërëm célibataire jot na ko jot na ko. léegi bu njëkk yi amoon amatul joxal sa xaalis des naan dama juum ñaan toogal vingt quatre def ni application bi ngay def li nga bëgg def. lépp soit efficace. ah mais. saa waay woote. Ah! Soxna. Baye Fall bi waaw xaalis bi xoolal jël ko séddale ma ko célibataire douanier yépp ñu jënd ci ay mbàjj ci sedd bi <laughs> dégg rek nee na dama koy nee na naa yi de mais mais nag naa la xamal leen de neexul ba neexul orange noppal na askan wi hmm? efficace orange noppal nañu waaye yow noppal nga ma ah saa yu ma defee erreur nga rectifier mais tu es maîtrisé waaw gis nga nag application bii waaw xeet yooyu yëpp ngi ci

raam na kañ pas comprendre. kii moom moom kër gi wala man maa moom sama kër. la première que xam ngeen ni lii dootu fi amaat. déedéet. fi amaat de. déedéet ñu ngi jégu. man daal wala bu wax ji bëri. da ngeen ñëw pour ma bàlle. waaw pour ma bàlle il faut génne kenn ku ci nekk fexe ba ma reetaan. nga fexe ba ma bëgg mooy que vous me racontez une histoire bu drôle nag. Hmm. loolu bëgg. ah bëgg changer affaire yi daal remplacer ko yu neex sa xol. Ah, mu neex na lépp rek lu neex moom la Naya. Ah. wax day leer. Naya. Ah. ndax nag wax dëgg yàlla ñun nag ay góor lañu. ay kilif lañu. du dëgg. Hmm? wax dëgg yàlla ñu ngi def changement de habillement di sol di rafet di charme di def lépp gi ndeen xaa jooñ da ngeen sol man de sonn man moom sonn man moom sonn déedéet déedéet déedéet man kay sonn Sofia Sofia du loolu sax sax dañuy waxtaan bi neex na gérer waaw gérer waaw nee na dafa bëgg ngeen man daa xam ne tëgg benn histoire une femme avec un mari ba pay kaalool deux fois ji day dem day toog trois ans quatre ans du ñëw mhm. jabar ji day taxawaan rek fu ne mu nekk fa mhm. jëkkër ji ñu nettali ko loolu mhm. mu ñëw fépp fu karaw ne ci moom mu raw ko ay laxas sew jëkkër ji dem femme bi jëlaat yoon bi ah waaye xam nga nan la def ah. ba mu yëgee ni yëf yi fireeku na jëkkër ji daa yegg si taxaw si buntu kër gi rek mu taxaw naan ko fiireeku na fiireeku na fiireeku ah. naan ko yeewu la miin yow la xam lépp fii réegul. Eh, laxas yi doy waar sax aussi papay kaaw la woon. jàng yi mu jag sotti. Eh, sama papa eh, bëgg tudd si kii bi. da doon envoyé dépasse par di juum di jooy naan mi añaani. loolu lay wax. yaay gaaw yaa raamata na ko ne eh añaa na kay añaa añaa ay waay kii dama fekke déedéet wala wala sey sey ah sey yoo rakk mi laay bañ foofu muy sey sey sey dama mus a sama dama mus a toog si ay biir sama genn gan comme nii rek ma ñëw rek jékki-jékki rek toog ay biir kii rek ma def loolu ñuy wax rakk mi di zéro pete pete ma def kuu xale bi rek moo ko dégg xale bi nam yaaw la ma ne nit mu ne bu yaaw la ma ne ko eh mu ne bu amul dara yow ma ne ko lokkul fële man kay miimu ma. waaw waaw miimu ma ay sàcc bi man kay ñaar miimu ma. is toppal fee. sàcc bi ah. madame nous attendons les résultats. da man ma reetaloo ba ma bëgg dee dama sol instant sama dënn bi mi ngi métti. alors comme que vous avez réussi. def sama xol bi neex neex. muy neex. madame yéen ñëpp waaw attends taxawal rek j'arrive donc yéen ñëpp ku ci nekk. comme nag léegi yëpp a neex mënuma ci jox kenn benn cadeau ñeneen ñi di frustré wu. Hmm. léegi ku ci nekk di am benn bis. bis mooy la ay bis yi di daw. déedéet ku nekk dinaa la bis. fóon ah fóon. ah man boo may fóon moom na fekk mu tëdd ba pare. te nag sur le front laa koy def. sama dënn bi mu ngi sa naq. d'accord. <laughs> ma dajale fóon yëpp ma dajale fóon yëpp. le front. Eh, ba ba eh, ah. le front. par cent franc. ah lii mooy front front. wóor mu ci kam. aywa mu ci kam. forom man nag dama blessé. ka forom. mu ci kam mu ci. ka forom. mu caare na. dama koy mën a déedéet. dama blessé. dafa blessé. forom bi daa blessé. forom bi dafa blessé woon mënu ma ko defal ko dem. lii bu wàccee suuf gën a neex. da ngeen kontaanul. di mu ci kam di mu ci. mu ci kam ça veut dire quoi. mu caare na noo doyee mouchoir mouchoir yi ci biti ci table la. ko beddal sama moto rek. ndax la ñu war a ko xeeb. te firim ne firim. mais dama ana nga mën ko man kay suukar si duma ko mën. déedéet damaa xam saa ki xoolal. kilo démb ci guddi kilo. Ah. mu des li boo ko mokkul yaay poñ. suukar si kat moom dama xamul lan la. boo ma xul yaa ngi. suukar moom valeur am dafa mel léegi. damaa jàpp. suukar ni mu weexee woon. tàll suukar ni mu safee waaw ak suukar. yàlla booy njambaan xam nga la suukar neex woon. njambaanu buy. maanaam nga dagg buy bi nii. waaw ah, sotti ci suukar sotti meew di ko jël bant di ko def nii. ci njambaanu buy. sama ŋaami dana weex tàll man dem ŋaami yaboy. wóor borom xumbal bi wóor ma waa RFM ci <laughs> di jég calcé rek lay nduróol calcé rek lay nduróol ma ragal ne rajo ko jigéen ñi dama war ci yàlla tey lii meedaa yii di fes fes fes fes fes fes kaw yow lan ngay nekk di souffrir nii la la jot boo demee ki gaañu mag xamu waxuma lii ko man ngay eh, ah, dem a waaru Tafa. lan kër Ibrahima Ndaw éleveur mu jox ma foofu benn kër ba yàgg mu yëkkati cent mille francs jox ma ko keroog ma jël xaalis bi def ko sama poche boo léegi mënuma wax xaalis bi gauche wala droite lay wol naa ko xool sama silib wol naa ko nekk ak gisuma te cent mille. cent mille franc la ma Ibrahima Ndaw jox cent mille franc. kaas nii man kaas léegi léegi lii. ba muy cent. ba muy cent si meeku nga si meeku. si meeku naa woon naa sama tubaay bi nekk si biir. man de man de li ma lay xamal mooy. si. lii yëpp yaa ko teg sa bopp. oh Kaaw yow lu tax mënoo rester tranquille essaye de savoir savoir quest que la propose lan lan la teg see àdduna loo xam ne dafay dafay dimbali nit mais nit ki yaay dimbali sa bopp. lan mooy loolu. dafa kan moo joxe kaas kaas ku koy joxe. yow kan moo yor kaas. yow kañ nekk nandite. xam nga ngay dëkk ci réew mi. kenn téyetu ko. foo koy def kon. sa compte ko def sa compte orange money. déedéet man yoruma yoruma orange yoruma numéro orange. numéro orange moom laa yorul moo tax man waxu orange mun munul nekk lool. léegi nag ànd ak ay ay jondoo gën a bon ànd ak ay seer baaxul du xam li xew gis nga. Hmm. application orange money bi. <laughs> Ah, <laughs> baax bu mu fàtte. baax bu mu fàtte waaye sama wol neexul. baax nga daara nag nga ko fa daara nag kenn joxetul kaas. lépp nga ci compte orange money léegi nag waa piis boo mun a yor waaw opération bu mu mun a bokk waaw boo amee application orange money bi waaw yore sa pièce d'identité waaw mun nga inscrire sa bopp sama am sa compte orange money yaa xam Al Jazeera mooy sa piis yaa xam Guinée Bissau mooy sa piis waaw Kër Baye Fall mooy sa piis Kër Baye Fall léegi léegi wax ma ku ndànk ndànk léegi da am léegi loo koy ubbee sa kattal di dante sa kattal di dante am naa kattal di dante waaw ne mun a koo wax carte d'identité ba tey. oh carte d'identité amul. yow léegi nag. voilà voilà. indi sama voilà sama carte d'identité. waaw kay sa carte d'identité gi. leer nañ dafa li ko wax dafa leer nañ li ko wax dafa. juróom eh, eh, bi na de. eh waxuma ngeen xool sama ànd. tafa. yow bi bi ñu sosee direction orange ma ne ca nga juddoo yow yàgg nga dangay ngay application bi ngay télécharge sa téléphone. waa boo ko téléchargé nag sa numéro pièce d'identité bii. waa la koy laaj nga dugal ko ci. daal di am sa compte orange money ci piste boo mën a nekk. li <laughs> ñu dama ne. Al Jazeera ngeen di bañ. xaalis réeratul. waaw <laughs> kenn juumatul. <laughs> kenn yónneetul xanaa di ko jox xaalis. da ngay taxaw fi nga taxaw yor sa compte orange money ñu may la nga dem jënd li ngay jënd da nga ca fay lii fay ca ndox fay ca courant fay ca lépp. te du génne si euh, téléphone bi. du génne ci poos nii ngay def tak tak mu ñi ngay dem di leen wayaani sax ñi ngay dem di leen wayaani wan leen comme sa carte d'identité bi. boole ko ak sa application. ñoom dañ lay jox. léegi nit ñi dañuy joxantee. yow yow célibataire duwaañ yi ma leen dimbali ci ay mbaaj fu ma ko jaarale. orange moo ne orange. ci la leen dimbali man pour man orange moo ne numéro orange rek la. ok wuyu. billaay du caaxaan. yow xam nga orange dafa nu mu ubbeeku. fuural. ay carré fóoralal. nga ni tey ay fóoral man balaa may fóoral balaa may fóoral may def dara damay jël sama kii bi carte d'identité bi ma yóbbu ko si sama ma ko ma jëm ma wax Ibrahima Ndaw bi pour xaalis rajo bi la gën a fonk. non rajo gën a fonk sax bakkan bi. moom rajo bi la waaye yow tamit saa yaa ngi nandal gars yi de. ah boo defee fi boo defee ñëpp naan tamit nañu arrangé ko foofu. ah boo <laughs> gën a yaa ngi def gars yi naan <laughs> mais lii daal métti ci cent yu réer moo ko seetaan <laughs> baax xanaa warga bi dañ la ko may. non kii sa xarit douanier la moo ñu nii desal. ah wala ah, ñoom dañuy attaaya rek ñu waaw waaw El Hadj Soxna warga bi du fuur. <laughs> ñoom dañuy attaaya rek. du fuur ñoom seen warga day nekk dafa baax. gaaw ñëw de depuis fii lay nekk de gaawutul. Eh, eh, moniteur bi day eh, kii. lii mayu muy indi. waaw fan ngeen jëm nii. dañuy dem entraînement. entraînement waaw kii dafa ñëw nee na dafa bëgg a wàññi tuuti kilo balaa moo dellu kay moo tax ma ne ko ñu dem salle bu nekk ci non benn séance rek la ñuy def non non jarul dem salle une heure de temps jaru ko ah. man mii ni ngeen di gis nii man kër si la <laughs> ah, xam lu bees sax naa dama ko doon nëbb nag yor naa fi ay saali saali samp yooyu bëri maa leen di entraîné looy wax nii mbër yu bëri ba ci état bi ministre yi nga gis ñu ponkal njool nii waaw yëpp maa leen yor ay procureur yëpp dama leen di entraîné loolu moo tax eh. la peine <laughs> de tenue défilé bi ñuy def par 4 eh, ci sutura bu leen bu ko kenn xam <laughs> Ah. waaw waaw bàyyi ñu dem comme tey solo équipement wala. non non kër gi mën ngeen fay def lu ngeen bëgg a def. Ah. entraînement du daw kese du distance kese. milieu bu xot comme nii. waaw comme ça. di ah, commencé étire. nii. à côté. encore côté. encore côté. si c'est une femme. waaw. qui prend ici. ici koy téye bu baax nag. poitrine bombée. tu ça. comme ça demi-tour encore. comme ça comme bon. c' am na beneen boo xam ne xam naa day difficile ci yéen. Ah. Ah. mais bu baax. comme ça tu mets de pointe du pied. Mm-hmm. mais laissez-moi faire moi moi seul. après vous prenez des leçons. comme ça. comme ça. Oui. tu rotation rapide. comme ça. Oh, ndax yaa ngi daanu am naanal ndox. ay góorsu waaw góorsu ah. góorsu non merci Naya. Ah, non non c'est pas Naya Naya. Ah, ah. am naanal. bu am pël toog. baax mos la. góorsu bi moom heureusement. ut leen fu ngeen ma teg. ma ne ko taaw ma non côté boobu du baax côté boobu du baax. côté boobu lay mais baax defal nañ ko. miir bi dañ arrêté. tuuti tuuti rek toogal toogal toogal. miir bi xaaral miir bi arrêté. santu leen luy xaw a def nii. non non ça va leen lu jël c'est passager ça va passer t'inquiète. protège-moi à la poitrine à la poitrine. nañ ko jàpp mu dugg ci biir voilà mi. na dem toog ci biir baax. baax yaa ngi ci kër gi. yaa ngi ah, ci ah kër gi ah bon ah ok donc on marche tranquillement li lépp ci entraînement la rek. Ah. parfois da ngay miir. mais parfois da ngay. ok pas à pas tu fais doucement pas à pas. c'est la première fois ma am dafa lay fii. non non defet defet la dim exercice entraînement yi moo métti rek vas-y. si si on comprend bien. merci léegi doon na waar. man te waar man. Sénégal man. yow ku nekk du mooy di sàmm sa njaboot bu baax. problème dama naroon dem Amérique ci Abdourahmane mu ne ma non parce que woo ma feebar bi dafa am beneen degré de dose. yow. bu ko gën a garaaw fi moo moo fi nekk fi mooy nekk ba mooy lëmbe kii la. yow waaw tata noos waxoo ko. yow guru wasa ci wax. guru wasa ba koñ bi garab gaa waxtaan bi luy wax amul njëriñ bi ñi ngay wax ñu ngi nii de. Ah. am gars yi bind leen ay fis fa toll ay eh, ku ne ci bunt bi maa ngi lay nuyu eh, gars gars yi yooyu noonu man loolu tax maa yàq kër bi. Ah. man waxuma man feebar bii laay wax ndax ñun dinañ du duñu yóbbaale ñun ah moom leen wax bi bu baax de dëkk bii dafa mel ni àdduna bi day bëgg a jeex de. moytu rek moytu rek. lu ñu wax feebar jaune feebar rouge. rek lépp feebar yëpp ñëw. feebar yëpp Covid Covid bi lan lay def changement changement nii. jaaxal réew adduna bëgg a tukki mujj jamono la. maa booy maa ngi ci jàmm. sant. ça dama dégg ngeen di waxtaanee comique bi. feebar bu bees bi. waaw bi booy jamono tas moom la seen nijaay Kaaw doon wax léegi. man damaa feebar yi bare na solution amatul nit ñi jaaxle man damaa def ne mujj jamono lañ ne. man man mii di wax ak yéen sax expert laa ci. donc Diouf saar mii nekk ministre sama sama cousin la ñoo jàngandoo. tu vois sama sama carte yi nii expert la Liban laa jàngee Liban mooy dëkku naar yi. ah yow ci Liban nga ah, doon laa jàngee médecine xam nga jàng lu ñuy wax euh, biologie. biologie ak euh, virologie. mooy ah. maanaam ah, virus. virus nu muy jógee ci biir nit ak nu muy changé wu loolu yépp jàng nañ ko. xam xoolaale nit ñi na est-ce que ñoom bu ñu amee virus nan la virus di doxee ci ñoom. jàng jàng nañ waaye booy yow yëpp nga ñëw xam nga moo tax. man foofu noonu fi ma nekkoon salaire cinq 5 millions laa doon fayoo ko. lan 5 millions de francs CFA. mais parce que je suis patriote xam nga dama bëgg oh. Sénégal PC e tout Vokora frappé les balles à fond bi loolu moom indiwaat kii sax oh. waaj di eh, eh. campagne te mu nekk ci ah, opposant bi te amul xaalis waaw waaw waaw kii te muy opposé déedéet bokk ca ka Pape Thiam de waaye sa xarit kan Ousmane Sow waaw genre yoon patriote Ousmane Sow ma la amul xaalis patriote la moo tax ma ni xaar mu ñibbi si Sénégal jàppale ko sama xarit la ñoom <laughs> dama lay wax de. Ah. ah man àdduna yëpp samay xarit la. xanaa wóoroo ah, ah, ñëpp laa wóoroo ñëpp. Eh. man sama bopp laa njëkk man de fama ne maa ngi fa dugg moom. même vaccin bi sax même vaccin bi. peuple bi. vaccin bi man man peuple bi far far bugaan nga. même vaccin bi sax maa ngi wax ne bugaan de. Eh, eh bàyyi leen ko ma localiste. man même vaccin sax bañ koy defar vaccin bii nii bu ñuy dóor nit ñi Johnson. waaw. Euh, joxe naa ci sama avis je suis le premier sénégalais bi joxe sama avis. ci attention mais attention écoutez le intellectuel. Eh, eh, oh, eh, il faut ngeen déglu ma ngeen bàyyi xel. kii ka. Hmm. Johnson bi bi maa ci dugal sama loxo woo sama cousin Diouf Sarr nee ko Johnson bi pour mu mën a dugg ci sénégalais yi il faut ñu am deretu yoo. Jonkon deretu yoo Johnson il faut ñu am deretu yoo pour mën cee def des xool nag est-ce que bu duggee ci. yaramu sénégalais yi dina réagir wala du réagir. waaw xanaa sénégalais yi nduroo yoo dim nga bëgg wax. non non nduroo wuñ yoo sax. mais boo xoolee yooyu dañ fee bëri. ah waaw voilà dañuy matt nit ñi. ci laa xalaat ni que virus bi. pour ñu mën koo faj. il ma ñëw jàppale sénégalais yi. oh mais booy fan la nekkoon ba affaire bi bëri ni ci dëkk bi de yow fa nekkoon. parce que instant bi ñu nekk Liban dañoo tëjoon frontières yi. Hmm. donc avion yi daawul woon naaw. Hmm. ma ne xaaral ma dox puisque damaa bëgg sama réew. dëgg la ma dox Liban ba fii jox la yow mi yow loo bokkal ban leen si. waaw waaw man. waaw ban leen la dafa doxoon. ah nga naan ban bi. ma dox li ba fii. Eh, eh, ndax ndax bëgg sama réew loolu bëgg sama réew moo ma ko yóbbee. tafa sama réew. waay. dama hmm. hmm. waaj. booy feebar bi dafa sérieux hmm. ku ci wax nañ ci wax wax bu sérieux mi ngi rey mi ngi lor bu fekkee da ngay fen nga ne ñu da ngay fen oh, bu fekkee da am xam-xam nga ne ñu am xam-xam ndax mënoo yor xam-xam bu meex nii état di la bàyyi ngay doxee li bi di ñëw fii ci réew mi. te jëloon la jot privé. waaw cinq millions ngay dox. au fait wat mais pop non non non woote naa léegi pépinière bu muux neen ma xaalis bi yegg si wul booy amuñu meew amuñu couche ci fin d'année bi jëlal xaalis bi nga yóbbul ma ko pépinière bu muux s'il vous plaît ok loolu laa sant jeexul ngay jàdd feneen même pépinière bu kaw la aussi amuñu booy booy yi foofu la même chose. su ma la joxee xaalis ñu la dugalee ma ko ci pépinière bi demal nga joxal ma nga dugal ko ci pépinière bi qu'est-ce que tu me racontes là ah, ok d'accord maa ngi fay woote ci kanam tuuti mais pépinière il faut que ñu ci bàyyi xel il faut que réew mi ñuy bàyyi xel les pépinières ñeex parce que xale yoo xamante dañ leen si réew mi lañ bokk ah ay xale yoo xamante ni ils n'ont pas de parents ils n'ont pas demandé à naître et ensuite ñu sànni leen ci mbedd bi ñu for leen yóbbu leen ci bopp ñeex te gars yi duñ leen jox dara ñu ah. il ah. ci xel bu baax. te baax ko xam. kii xam nga ko réalité xam nga xam ko rendi xam ko ma ko mu ñëw rek te woo suñu kaw nii laaj ko. léegi yow. waaw. lan moo fa fi indi fii. fii si fii nii lan moo fi indi ak lu say tànk fii ak ku la tax jóg. pour wax leen dëgg rek. waaw dama ñëwoon pour sàcc ma gis leen ma ne naa toog waxtaan. eh kattan sama maam ju baax ngay génn sama nijaay allez kattan sama maam ju baax ngay génn ko gujjumaa eh nga xam ne sa muy tegal ñu ay messe métesee day dox Louga boobu day duulal ah, ah, eh, eh, eh, a sensible ko def bu ko saaga waay. da a sensible waay. saa ngi ñaaw say dafa ñaaw baaxul. dafa saa ngi doxi fii nga saaga. day fen. au feni waxul dégg kii message cinq millions day fayee ko nga day doxe li boo fi loolu xel day nangu ah? am fii rek. kii di pàccal day forox ngay wax. ah yow ni ngay làkkee dafa métti de. waay yéen da ngeen a sensible. nit du sensible. mais boobu li mu wax ci feebar pan man vraiment daal saa ah, tatata man damay dem daanu ba su ma naanee si ndox bii rek. feebar bii dem mais kaa wax na ngaa génn mu koj la de. man waaw lay kojam ñun ñooy ànd ak génn appartement waaw boo ko deful bu lekkee sa xaalis looy wax déggoo wax na sàcc la dafa bu ma xelal de. waaw bébé wuy ma. sama yaay laa waroon envoyé xaalis Côte d'Ivoire xam nga foofu la nekk fan yii. Mhm. mais dama xool sama compte li ma yor matul ak lu ñu waxante ma moom. dama bëggoon nga defal ma transfert rek ndax man rek lay xaar balaa moo gën a parce que léegi région bi muy Mali Burkina Faso euh, Côte d'Ivoire hmm, hein, partout ah dans région là c'est 1,5 pour cent donc. voilà. méttiwul quoi méttiwul ah. 250 000 nga koy transféré. 250 000. waaw. 250 000 dinaa ko envoyé sa yaay quoi man. mais bébé defal naa non sama tur non mais attends mais sama dignité sama réputation pourquoi ngay jël ay sagaru 250 000 di ko yónnee se yaay. juste 750 non non non non non 250 000 lan la mën a régler. waaw moom moo ne loolu la soxla. am na 1 million yi ma la joxoon bërki démb. man tamit ci social laa ko def dama. voilà nga bëgg yónnee sa yaay 250 000 qu'est-ce qu'elle va faire avec. je vais lui donner 2 millions. waaw tax na ba tey moom daal dafa am naa lu ma mettre trop ci 2 millions yi ma koy yónnee. parce que du yoon sa yaay bu ma ko yónnee dama ko war a yónnee au delà de de ça. dangay tooñ quoi. allah sama famille meruñu benn yoon ci yow. Oh, yaa ngi toppatoo seen doom yaa ngi may yaa ngi leen di ok dugal naa ci frais parce que léegi frais du dara. frais du dara un ci suuf région bi nga yónnee ko avec Orange Money fii wàcc na ba zéro fii wàcc na ba bébé man chaque jour ak lu. waaw c'est bon dem na ensuite. bu ah. demee di ko retirer. Uh-huh. du fay ñaari dërëm. c'est gratuit. yow lii gën a na neex. 2 millions yi ma ko yónnee yooyu lay jotaat sans ah. problème. yow Orange Money daal chaque jour ak ay mbégteel. <laughs> lii daal kenn mënu wax lépp. allo maman ah message bi ñëw na. waaw ah, d'accord sa goro moo fa jaadu nee na 2 millions la lay jox. te na ma baax na ñaanal ko rek gudd fan ak wér. waaw yéene bi ëpp na loolu. ok merci bien des choses nuyu ma xam naa après naa la. allez bye. tu as acheté les, koy waxee kër gi dina wàcc ba zéro. sànq boobu téléphone ba mu wuyu ba ma jot te moo ma jox numéro. Eh, ma ma mage. man Sonko su ma koy woo di ko jot. salaamaaleykum gars yi <laughs> waaye yuuxu bi man la wala Sophie. salaamaaleykum. waaleykum salaam mais kii su sa nuyoo comme ça laaj fi salaamaaleykum man kii kii ni mu mën di nuyoo. waaw ah, wuy ma toogaay amul damaa yàkkamti man ak Ndiol dañ ñoo woo léegi urgence dañoo war a génn. waaw man naroon ko bàyyi moom kese kër ga ma xalaat ne day wéet mm-hmm. ah, ma ne ma ànd ko ci grand place bi. loolu yow sa kër daa génn naan attaaya le temps ñuy dem ñoo xam naa su ma ñëwee rek dinaa. amul benn problème li dañ ci kontaan si leen ma ko dégg doomu géej am na ndox doomu géej am na ndox. toppatoo lañ ko dégg yow mat na tegal ataay tegal ataay tàngalal ataay tàngalal ataay tàngalal ataay bu sukkandi bari nag. nekkuma ci tour de famille nekkuma ci tour de famille de. dëgg la ma doon ataaya moom. fan la toll. waaw foo toll. foo moo lay laaj. moom mooy ataaya kat. kat ah ah ataaya moom waaw ataaya. fan ngeen toll. foo toll yow lay laaj. foo toll yow lay laaj. yow lay wax kii day wax yow doo ko ku si gën a ataayakat yaa gën ma rek ma la. xelil <laughs> yow xelil nag. doo ba tollu fi rek. mais attends yéen des na kenn saara Kaaw. il s'appelle Kaaw ah. toog ah de. Kaaw de moo xaram yooyu muy sàmm ñooyam. Hmm. Kaaw de jëmee nii mu jëm xar yaa koy orienté. Kaaw de Kaaw de localisé ko. amul téléphone. bëtul na ko simple la yor. Ah. simple la yor. excusez-moi excusez-moi. oui allo ah livreur bi foo toll ok da nga egsi waaw yéegal maa ngi troisième d'accord ok boo yéegee troisième rek à droite ok. désolé. postal postal postal. daaw ma daaw. ça va. ça va. ça va bien. ça va bien. yow del autorisation port d'arme sax dur ma wax la ko dina ma sax rey nit de. dal lay lan la la def mën a effiser. yow toog nga yow. ça va madame. ça va. tout bien. Mm. ça <laughs> tey da nga ñëwoon sess yi ñu fii nii. dama leen sess soyez les deux bienvenus. <laughs> soyez les deux bienvenus. man maa ñëw bi yoon. da te organisation solo yow ni nga solo comme añu premier njëkkee yooyu. les premiers hommes les premiers hommes vivaient dans des cassettes. Tafa man bokkuma ak yéen Tafa. kaw bokkuma ak yéen di. ah man de. ah salaamaaleykum. ça euh, euh, de la part de de la part de Penda oui. c'est cent vingt mille plus deux mille francs. Oh, eh booy li nga def nii di ko doo njaboot boo ko. waaw sa loxo bu dóor fi sa loxo. bàyyi góor taxaw gi poñe ay yàlla. waaw da ngay taxaw normal rek et puis yéegal sa tubay gi. waaw pardon pardon pardon. Euh, dama oublié dama fàtte euh, sama calpe kër ga parce que bu may ñëw fii dama yàkkamti te moom euh, je savais pas que ni fii la may fay yor ngeen 150 mille ngeen aal ma ba ma dem kër ga. man sol bu bon laay sol ka yow solu kii ak ngay defar. comme man sama sol baaxul njëkk leen ko rek ngeen. non juste da ngeen may à quelque chose léegi ba ma dem à la maison je vais gérer ça. Tafa. mën nga ma bàyyi wala mënoo ma bàyyi. booy affaire bi ñaata la lan la Tafa. <laughs> ah 122 000. Mm-hmm. mais ah, ah yow yaa ko jox 122 000 man maa ko war a jox 122 000 ah, dama fàtte sama calpecteur. oh oui an totum 122 000 baax jox ko 122 000. yow ma xool lu mu rafetee rek. man moom damay participer rek. waaw ah, parce que dama leen di jàppale rek. loo gis it baax. baax loo yor. baax bi déedéet doy moo xam loo yor. li ma mottali ko. waaw li ah. ma mottali. man de indi leen xaalis non indi leen ma mottali. waaw eh, taxaw da ngay eh, bëriwul baax eh. mottali. Tafa jogal baax rek yi. mu ma mottali rek li nga yor bëriwul juróom-benn téeméer nga yor itam. li nga yor Tafa dafa bëri. léegi yow lan ngeen yor. man yow Tafa lii rek nga yor baax loolu kese ngeen yor. ah ma waaye itam loo yor génn. man maay mottali. yaay mootali cent vingt mille. waaw waaw moom lu mu la jox trois mille. bul fàtte yore loolu nga ma dix mille. waaw xaaral boo yow da faral di ñëw fii lu bëri. tafa. Euh, ah. ba mille quatre cent mi yoon. ba mille quatre cent mooy. mille quatre cent mille quatre mooy naka. Euh, tafa boo yoree tamit leneen quoi génn ñetti téeméer bu manqué ñaar fukk. mooy naka foofu. deux cent cent franc yi nii te cinquante mille la loolu moo tax loo ci teg baax loolu sama numéro xoolal jox ma rek ma xool ñaata ngeen trois cent la quatre mille trois cent def si terminus junni bi ñett ngeen war a mën a dajale 9500 10 000 yu mat sax amoo leen ko ngeen ne yéen man ngeen di song man ngeen di engagé am rusloo ngeen ma trop dindee leen ko war nga ak sukkar ngeen dolli ko ci. man sama moo yéen ñàkk ngeen fay daa ah. dem yow kër ga ma jox la. non def na non non ndànk rek ndànk rek non ndànk rek baax li may def xam naa ko. waaw defal defal ma xool li may def xam naa ko waaw léegi defal. man damay xaar sama wàll. defal li ngay def. yow yow bi ngay dem kër Sonko abaluma la 2000. Ah. nga nag ci jël taxi. waa jox ma indi. Ah, jël naa samay 2000. déedéet. talla na. ah. <laughs> kakaay kakaay dafa eh, damay damay. Eh, voilà eh, voilà damay def ñu mbaas. ana 10 000 yi ma la wax mu jox la ba pare. mbaas. mille quatre lay jox la fii yore loolu nga ma deux mille francs deux mille francs bul fàtte keroog artin hakkile ma deux mille francs dafa Mouhamad argaan wat ni keroog bi nga doon tux abu naa la cinq merci man jël naa sama xaalis koy daf ma léegi tey ah. lii lan teel rek day may ma ko teel ma jël teel merci. ah di ngay gën ah yow ba ala ngóol yeeso kay bii kanam mu jël <laughs> jarut kala naxa eh xoolal bu eh. Hmm? Eh. dem. ba eh. yaa eh dama lay sang eh attaay dama la koy sang de. ba def nga li ngay def. sang ma troisième ah, bi waaw eh sang ma troisième bi. ma jël. donc merci. bonsoir. Merci. Merci. Bonne et heureuse année Télé Sénégal. Longue vie, santé, bonheur, et à prospérité. Tout, à, à, à, tous ces gens qui sont à l'extérieur mm -hmm. et qui voulaient vraiment fêter euh, le 31 décembre au Sénégal, je vous dis euh, bonne, bonne et heureuse année bonne et heureuse année les gars. à vous de même. bonne et heureuse. xamu leen dara. Baaba Nawel bonne et <laughs> heureuse Nawel ba mu Nawel mii. Bonne année à tous. Ça va bien. Ça va. Eh, Bonne année. Heureuse année. Bonne année à vous. Ça va, Sophia. Oui, ça va. Ça va. Naka vous? Elle est affaires, ça marche. Elle est faite, ça se passe. Cool, cool. Elle est bonheur. Ça va. Ça va. Alhamdulillah. Moi, ça va. Ça se passe. Demain, am surprise bu mu la bëgg a defal. Mm-hmm. xam nga kii kan. <laughs> Eh. lii lii yoon da koy tere caricature nit di ko wane nii. mais yow am na goût ah? merci beaucoup merci Pa tey ci fin d'année bi su ma la doon choisir tey war a ànd ak yow kii foo ma yóbbu. <coughs> avant avant avant tout. Mm-hmm. Euh, dinañ dem may ba pare léegi. ñu fi jógee ñu dem foyer Kamb. foyer. Kamb seen foyer bi dama nekk si darka say. ça veut dire. merci kon bu léegi. merci merci dafay coloré entre 1000 francs. merci ça va ah? merci non non merci na fataaya. Euh, Touré. <laughs> waaw xam nga kii Fallou Dieng day tëgg tey si 31 bi pinc bi. mais c'est fermé non. Fallou Dieng gis oh ça va. ku ñëw moo la jox paas. baax ça plus consommation. merci. Fallou koy yëngal daal waaw. wéy wéy bi la ñuy dem. Hmm, avant tout. Baba Maal tëggatul de. Euh, Baba ak. Euh, ak Caawele ak euh, Fan Lawbe. du la yóbbu place kono daana maay bi la ñuy dem. Hmm. foofu la dem ñu lekk foofu. am na ay njorndi am na ay. stop je suis vraiment désolée pour yéen d'abord dama leen di remercier bu baax a baax j'ai passé quinze jours sama ay vacances yu neex. may nga yu ma mënul nettali fenn sama xol sedd na changé naa air dund naa leneen lu bokkul lu ma doon dund France. sur sa nag dama leen di gërëm bu baax a baax xam ngeen ay nit yu baax ngeen yu mën teraanga. ah mën na bégal doomu aadama te yéen ay xarit ngeen dama leen fekk ngeen di ànd. moo tax nag mënuma ci choisir kenn. Ah, di leen tas seen ànd bu rafet bi te ni ma leen gisee ak sama copine ak jëkkëram. du ma yàgg dara ci kër gi. ay nit yu baax lañ. Ah, dama leen fekk bu yàgg ngeen di ànd. si si ay gaañ te gis naa ni da ngeen ànd ah, te seen xol yi dafa rafet dafa eh, jubóo. xol yi ñu la gaay yor gaay la. <laughs> ni ngeen toogee nii nag dara du ko yàq te man duma ko yàq. Euh, dama leen di remercier bu baax a baax di leen ñaan aussi ngeen jàpp ko nii bu leen bàyyi. Mm-hmm. ay nit yu ñu ànd nii rek bu leen xajal dara seen diggante. kontaan naa xam ay nit yu. ma chère kontaan naa ci ñoom aussi santal ma leen ki xamal ma leen. mbëggeel gi du benn c'est vraiment gentil. léegi Sofia lii lépp mooy naka yow bàyyi nga ñu bàyyi nga am daal man. Hmm? xam nga loolu la yàlla dogal te mënuma choisir kenn. dogalu ko yaa ko dogal. mais doo wuyu ji parce que dina sax ba tey mi ngi lay euh, si si dinaa ko wuyu. Eh, mais kenn bi mi ngi tàkk lan la. allô oui dans deux minutes j'arrive d'accord d'accord ok j'arrive. mais soxna Aliou bisous tout à l'heure. soxna gàddu kooru taay fii. d'ailleurs may dem. Hmm? ok ah, euh, à bientôt incha allah ok merci c'est vraiment gentil allez au revoir dina ko dégg incha allah d'accord. Naya jógal ma ko. s'il vous plaît hein, hein, on garde les les mauvaises émotions. Ah, ah. ne soyez pas négatif. on est à la fin d'année. il faut que ça soit vraiment jovial. il faut que mu neex. ok. Mm-hmm. ñu ngi ci biir kër gi nanu fête suñu 31 bu ñu ko kenn yàqal où est le problème ah moom dem na ñun ñoo ngi fii ensuite c'est ce que ce que li may déplorer mooy vous vous prenez pour des clowns moi je savais que vous vous n'allez pas réussir avec cette dame parce que vous êtes des clowns vous ne faites que de la pitrerie c'est ça votre problème et là je vous dis quelque chose ni ngeen di dara neexu ma ci dara neexu ma ci lii mooy seen problème. Hmm. voilà c' est ça. affaire bi jeex. Ah, seen costi rek laa xaw ma da ngeen ko luwee woon xaw ma da ngeen ko abonné diis na. dama leen di ñaan rek. sabilillahi tarante bi bàyyi leen boo tarantoo. non non man ma ñu non non non non jënd nañu man man man man man mun naa la ñaan benn dara émission bu ndaw bu nga may. bien sûr tey li ma gëm leen xaw ma lan la. doo nelaw nag damay yow rek sama yaram bi. xool la bu doo nelaw xaaral ma defal ko café vitamine C. dañuy feete de dañuy feetu ba mu nii lii lan la nii. man moom jigéen boo damb seen moral damay exempté moom. exempté waaw moom. lenn laa bëggoon kenn ci yéen yorul numéro ndaw si. yow yoroo woon numéro ma nga daree kii ba tey. non dafa dugal dafa ma dugal liste noire. ndax waay ah dafa bloqué léegi. Hmm. moom pour ma bañ a sori quoi. Hmm. yorul la na ma taw. 1000 francs waaw dafa war a jënd crédit yorul ma envoyé ko la ne ci jox sa poche. sa 1000 francs ça va. 2 kenn ku nekk dinaa la jox parce que bëgguma fête bi dara lu ko yàq. dafa am jógal nga defar xeer non nga defar xeer jógal nga defar xeer. day nax eh. non non bàyyi loolu kenn ku si nekk eh. ci yéen naa la jox deux millions cinq cent ngeen fàtte loolu on feneen ci biir feneen non non non on feneen boogul dig dul mënoo jóg parce que xeex baa ngi ñëw mënoo jóg non man ça va ça va non non ça va mais xaar yi sama biir fekk amul problème bu ñu paree dem def suñu promenade à la ville et tout ça ah taal suñuy feu d'artifice et puis c'est fini jigéen la rek mooy le problème sama tànk yi ah, yow yow yow solo mag yi njëkk yi ngay solo la ah lii moo gën sax nga dindi hmm. na. non non bàyyi boo tarantoo. nga ñëw ma invité Jusqu'au 30 janvier, Orange Monnaie, en partenariat avec Canal+, vous offre des cadeaux par milliers. Payez vos réabonnements Canal+ avec Orange Monnaie et profitez de 15 jours supplémentaires gratuits sur toutes les chaînes et de plein d'autres bons plans. Orange Money ak Canal fay na bi dafay wàcc ba zéro. Orange. fii wàcc na waay fii ba ci tombala bu mag bi ngir enveloppe yu 50 000 francs yi wala sax 4-4 bu na kalpe Orange